Oh, okay. Okay. It's a shake. It's a shake. Let the place on it. The place is on the c'est le c'est euh, président Sonko demi euh, muy Anna ana euh, magal Toubam

loolee ki man jabaru Sonko doomam lu ci yoonam waaye Sénégal yéen ñi jigéen yéen ñi ki bu porté féministe. waaw. réagissez quand même. dëgg Dakar. Dakar. jabari ko Sonko ak njabootam. waaw. ay prisonniers lañu à ciel ouvert. dégg ngeen. secret topp bu ñuy génn bay dem hôpital auto renseignement moo ngi. gars yi like leen partagé leen partagé leen like ah, ñu indi xibaar. moo tax su ma gisee ñenn toog naan. like gën leen like waaw. te ah. xërëm leen ñoo kilifa diine yi kilifa. lan moo xew. dégg ngeen li ñu wax. Sénégal a yem si say nekk. xaaral dégg leen dégg mu wax. intravenise bi foog ñu surveiller ko foog ñu yóbbu ko këram bu ñu sañoon ñoom ñu wàcc ko fa sax buy lëndi pour mën ko nangu mu dóor ay perfusion ak yooyu. loolu ay médecin am ñoo koy def beneen médecin militaire du ko defal. dégg nga Sonko a été clair. bu ñu ko yóbboo këram nag. waaw. dañ koy tëjaat à ciel ouvert. gars yi dégg ngeen. laaj leen partagé bi bii baax xam nga lan la waaw. barrière yi waru fa des la. barrière bi des barrière yi bii baax gars yi du fa des de. ah bon. ndax ma waxaat leen beneen révélation bu leen déglu njabootu Sonko d'accord ñu pour ñu dem Ziguinchor. non li mu wax gars yi laaj nañu tamit cinquante deux personnes benn laaj eh balaa ñuy wax ci jabaru Sonko am na lu mu wax ci révélation Sonko nañ déglu loolu ba pare parce que dafa mel ne bàyyi Ndiaye dafa ñu bëgg expliquer ne Ousmane Sonko gars yi dañ ko bëgg bàyyi mais buñ ko bàyyee dañ koy yóbbuwaat site kër góor gi euh, léegi nañu nañu déglu révélation yi muy wax parce que man li ma gënoon intéressé sax mooy intéressé mooy jabaru Sonko Anna Diamanka ak benn ak Khady Kébé déggu leen Baye Ndiaye déggu leen. association mhm. rek après ñu ma ma defal leen analyse. léegi ay xale Dakar ci boppam. waaw ñoo commencé naan rebelle yi Dakar di xeex. dégg ngeen léegi xale ah, dégg ngeen waaw. tey bu ñu demoon nii ba ñu jël leen di Samabat TV mooy télé jiiji bi gars yi leen rek li mu wax ci Sonko après ñu analyser parce que wax na ba wax ne libération. Sonko dinañ toog barricade gis ah. tëj bi commencé nañ lépp a lépp gars yi gis nga bi ñu leen wax lépp ku nekk ñu jubile ñuy seetaan rek ñoom xam nañ li ñuy def ñun xam nañ fi ñu toll. Mhm. xam nañ ñun xam nañ. waaw. dinañ ko bàyyi yóbbu këram. dégg ngeen ndax réussir nañ dara luñ koy def mais am na médecin yoo xam dinañ si jàpp mais wóorul parce que man médecin bi daf ma ne wóorul. dégg ngeen. bi foog ñu ko. dégg ngeen yóbbu ko këram bu ñu sañoon ñoom ñu wàcc ko fa sax ba lundi. waaw pour mën ko nangu mu dóor ay perfusion ak yooyu dégg ngeen dégg ngeen gars yi laaj lañ leen tamit wala laaj yi baaxul déggu leen waaw dañ koy tëjaat barricade programme bi lan la mooy lan barrière waru fa des barrière bi des barrière yi bii baax gars yi du fa des ah bon ndax ma waxaat leen beneen révélation boo leen nekkul njabootu Sonko d'accord ñu pour léegi nag njabootu Sonko est-ce dañ leen fal politique lii moo lay wan ne Sall il koo foo parce que moom dañ ko fal jabaram ak doomam dirigé dégg ngeen Sonko moo tax tey mu tënk njabootu Sonko dafa yaa ngeen may suivre dégg Sonko mënul génn est-ce Sonko wala ay ngeen vacances la pour lan ñu jël pour vacances Casamance nguur gi bañ bañ gars yi laaj leen leen tamit partagé leen. loolu léegi man jabaru Sonko doomam lu ci yoonam waaye Sénégal pourquoi. dégg nga yéen ñi jigéen yéen ñi kii bu porté féministe. dégg leen laaj leen partagé leen après ma ma expliqué leen voilà. yéen ñëpp a ngi vacances kii mu ngi bëgg a dem. bëgg a dem seen maam yaayam seen maam mais yaay Sonko ngi sikk. waaw waaye ñu ngi dem seen maam chaque vacance ñu ngi sikk seen boy seen morom yaay bi xaar sikk. waaw. état ne Macky Marième Faye Sall ne jabari Sonko. du couche Dakar dinañ dem kat dinañ dem Dakar dégg ngeen waaw dañ leen tere génn. ay merci loolu laa bëgg a dégg. ah naa arrêté mën bu ñu ko Baye njaay waxul sax waroon nañ ko mën a xamal suñu bopp mooy ne Macky Sall yemul ci jàpp président Sonko gars yi gën leen laaj gën partagé. parce que tamit ñun il faut ngeen ñuy dooleel parce que ñu bëri fu mu nekk dañoo découragé liveur yu bëri dañoo découragé dañoo wax ba xamatuñu lu ñuy wax mais heure bi du heure découragement jaajëf gars ngeen def heure bi Aliou Ba ñëpp maa ngi leen di nuyu heure bi mooy heure bi la ñu war a gën a xeex heure bi du heure découragement heure bi lañu war a gën a xeex dégg ngeen lii ñu Baye Ndiaye wax même bu ñu ko waxuloon war nañ ko xamal suñu bopp que ne soow ko mi ngi dund lu metti mais aussi njabootam mi ngi dund lu metti Baye Ndiaye nee nañu Ousmane Sonko dañu euh, tere soxnaam mu génn dem Casamance wala mu dem euh, doomam yi dem pour vacances man fan yële boo leen ma déglu woon dama ne woon Anna Diamanka dafa war a génn mu jàppale jëkkëram mu mu xeexal jëkkëram balaa ñuy rey jëkkëram loolu ku la ko wax bu fekkee ne bu fekkee ne laa wax daf ko leer na jëkkëram sonn na te kenn jàppalewu ko man li may diggal ànn jamanka ak soxna Xadi Kebe mooy ñu génn mu jéem wallu seen jëkkër ndax patriote xale yi xamuñu lu ñuy def euh, dirigeant patriote yi xamuñu lu ñuy def bu dee nag aana dafa dem ba ci biir laa wax mu gis ne jëkkëram mën nañ ko rey ndax lekkul naanu aana dafa war a génn mu sensibiliser nit ñi yaa ngi may dégg am na ñoo xam ne jaajëf Fatimata Binta am na ñoo xam ne dañ ne non non jabaru Sonko dañ koy sacrifié fii amul ku ñuy sacrifié maa ngi dégg Akhenaton di wax loolu di wax ne dañoo sacrifié Sonko kon waruñu sacrifié jabaru euh, Sonko nan la ñuy sacrifié jabaru ko Sonko Macky Sall sañ na jàpp Anna Diamanka Anna Diamanka amul droit wala soxna Khady Kébé ñu jàpp jëkkëram mu génn mu def benn vidéo mu ne xale yi ah maa ngi leen di yëgal ne moom jëkkëram sonn na jëkkëram ah, ah, lekkatul naanatul mu wax ñu li xew loolu am na jamono ko ah, amul droit mu wax ko loolu loolu du appel à l'insurrection waxuñu Anna jamankaa mu génn mu ne xale yi dem leen principal ngeen dajji bunt bi ngeen génn Ousmane Sonko waxuñu ko mu def loolu liñ koy wax rek mooy moom ak soxna Khady Kébé am na nañu droit ñu génn dox bu dee dañoo génn dox ñu jàpp ñu tere leen génn Anna Diamanka dafa ñu ko war a wax parce jàpp sa jëkkër benn benn la mais yow nga ne da ngay génn foo génn ñu lay topp di la suivre lan moo tax ñu koy topp Baye Ndiaye laa leen tegal léegi mu ne Anna Diamanka dafa bëggoon dem euh, euh, Casamance ñu ne ko doo dem Casamance est-ce que est-ce que jabaru soo yi dañ leen jàpp même bu ñu leen jàppul sax même bu ñu leen jàppul man li may wax mooy Anna jëkkëram du n'importe qui Khady Kébé jëkkëram du n'importe qui elles apple appelées à devenir première dame xam nga mënoo nekk jabaru Sonko ba pare nga ne doo politique déedéet loolu mënul nekk parce que boo nekkee jabaru Sonko tu es la femme du chef de l'opposition boo nekkee jabaru Sonko tu peux être appelé à à être la première dame wala les premières dames ñoom ñaar ñëpp seen jëkkër bu nekkee président dañuy politique par force xam nga kon nag bu fekkee ne nit ñi dañoo jaaxle jaaxle jaaxle xamatuñu fu ñu jëm ñoom lépp lu ñu mën a def pour xeex bi gën a dëgër dañ ko war a def dañoo war a bokk ci xeex ndax Ousmane Sonko mës na génn mu moom ak Anna Diamanka mu invité ko ci benn meeting xaaral sax defe naa yoroon naa photo bi xaaral leen defe naa defoon naa euh, j'étais à la manif pour Paris tey manifestation bi dafa mel ne bu semaine passée moo gën a réussir n'est-ce waaw mais garaawul parce que nit ñi tamit bu ñu nekkee Europe xëy na du ñu am jot manifestation euh, bi y a euh, passé dafa qui manifestation ont passé mo gëna réussir mais bu leen découragé même bu dee 100 personnes a ñëw non non dafa gisuma gisuma photo bi non non dafa na sama téléphone bi la nek sama téléphone bi la nek mais xam ngeen fumay wax xam ngeen je wax Ousmane Sonko mës na nek dafa place de l'Obélisque le won xawma ana sum ka ñëw mu japp ci loxo bi Anna mi ngi euh, euh, muuru muuru lu xonk xam ngeen photo bi may wax kon ana mës na ñëw Anna Diamanka mës na ñëw ci kii ne les gens sont en vacances Anna Diamanka mës mës na ñëw mës na ñëw ci ci meetingu politique Ousmane Sonko n'est-ce pas bu bu bu vous souvenez bu vous kon ñiy wax naan Anna Diamanka warul dugg ci xeex bi da ngeen xamul da ngeen xamul rek ndax Anna Anna day politique Anna mës na ñëw ci benn mu sol euh, yére bu weex Ousmane Sonko téye ko mu jàpp ne loxo Ousmane Sonko waaw xaaral ma defee Anna Diamanka Sonko peut naa ko gis. kon nag ñu mel ne Akhenaton di wax jaajëf Khady Diop ñu mel ne Akhenaton di wax naan ñun dañoo bëgg sacrifier Anna Diamanka déedéet sacrifier wu ñu Anna Diamanka ñun dañoo bëgg mu mu sauver jëkkëram xam nga dañoo bëgg mu sauver jëkkëram xaaral ma def mu mu. mu sauver jëkkëram bugg ñu mu toog ñu tàgge ko jëkkëram mu nekk fi naan day tënji bu boobaa lay gën a métti photo bi laa leen doon wax photo bi photo bi photo meeting la n'est-ce bi Ousmane Sonko ak Anna Diamanka gis ngeen Anna sol jean muuru ah Anna sol jiin jean muuru gars yi gën leen laa gën leen partagé gën leen laa gën leen partagé waaw ah, man maa ngi nii yàlla xam na ne def dama sonn yàlla xam na ne dama sonn bëgguma woon sax def live bu ma deful live ngeen ne Mister Shake foo nekk bu ma defee live doo leen bëri xam nga sama vacance léegi mu jeex je suis très moo tax sax sama ne tey xaar ma teel commencé gis ngeen Anna Diamanka di benn meeting la woon Ousmane Sonko indi jabaram ci meeting kon bu leen wax ne Anna warul politique xëy na Khady Kébé bu leen xëy soxna Khady Kébé ngeen ne warul politique mais Anna moom jeune la euh, euh, euh, bul wax elle peut rien faire mos enligino bul wax ne elle peut waaye yéen man jaaxal ngeen vraiment man jaaxal ngeen vraiment boo leen waxee ne Andy Diamant Ba ne peut rien faire vraiment ngeen mos àll joli na Andy Diamant mu génn def vidéo 10 minutes ah soññaat soññaat patriote parce que fu mu nekk patriote di jaaxle nañu ah xamatul fu ñu jëm Andy Diamant Ka génnaat ne ah yéen sama jëkkër jiwu leen lii de sama jëkkër jiwu leen lii sama jëkkër dafa leen daan yàgg wax ngeen ne boo leen ko laalee boo leen ko laalee dinaa leen dóor sama jëkkër da doon wax est ce que ñu ma jàppee est ce que di ko seetaan waaye fi mu nekk dafa mel ne moom jëkkëram dangeen ngeen ko seetaan ana jamaan nag jamaanka mënul génn mu def loolu ah dama lay laaj Mos Angelino ana jamaanka bu génnoon di wax ne ah man dama ñëw pour wax leen ne moom jëkkëram Ousmane Sonko sonn na sonnoon te warul leen ko abandonné Ousmane Sonko mi ngi ci euh, euh, ñiy wax ne dafay def grève deful def la faim mi ngi def grève de la loolu ana mënu ko wax amul droit mu wax loolu ah

xamatuma fu ma jëm te man bëgguma Sonko dee te man bëgguma moom mu nekk mu nekk li ñuy wax veuve maanaam ku jëkkëram dee comme Pastef defuñu lu ñu war a def xale yi Pastef génn ñu fi mu nekk dañoo jaaxle de lépp lu ñu xalaat ne war na mën a génn Sonko waruñu ko xeeb ah waaw man li ma wax mooy Pastef bu ñu yaakaara ci ñoom tey ñu dee bu ñu yaakaara ci ñoom tey ñu dee mos Angelina Pastef dañu barricadé Ousmane Sonko 55 jours defuñu dara ils n'ont pas levé le petit doigt Wa Pastef 55 jours xamuñu ndax Sonko mo leen wax toogle xamuñu mais ils n'ont pas levé le petit doigt defuñu marche defuñu dara barrière bi buñ koy doon jéem dindi wa yeewu askan bi ñoo jëm ñom gatché fal, ñoo dem di sop Gatché fal mo dem di sop ay ay gàkku ah ak ak du sop di sóob ñu sànni benn grenade gàccee fal daw dugg ci otom daw kon man li may wax Anna Diamanka président Sonko mi ngi ni mës ko indi euh, meeting politique mës na ko indi kon bu len wax ne ana warul politique man limay wax c'est très clair wa ah, et puis du mos mos du lor rek dama avant ngay ñew dama tek bay ndjay bay ndjay système daf ñu jox ben information comme quoi dañ ko barricader ana ana jamanka dañ ko téré genn kërëm dafa bëggoon dem euh, euh, Casamance vacances mom ak domam Macky Sall ne ko do dem est-ce que lolu c'est normal. est-ce que loolu sa normal loolu bu dee am na man je propose que Anne dafa war a génn mu dénoncer loolu dafa war a génn mu def vidéo mu ne mu ne Macky Sall jàppul Sonko kese moom it daf ko jàpp le numéro 2 de Pastef est incapable la numéro 3 est incapable le numéro 4 ñoom ñëpp ils sont kenn bëggul jël initiative kenn moo fi jëloon initiative muy Ngagne Demba Touré mais déggatuñ ko comprendre léegi nag comme ñun dañoo jaaxle Baye Ndiaye istam li tax ma tuddee sama live Anna Diamanka barricade su suma sukkandikoo ci li Baye Ndiaye wax Baye njaay nee na doomu Ousmane Sonko ak ñoom Anna dañoo bëggoon dem vacances parce que chaque année dañuy dem vacances Casamance Macky Sall ne ko doo dem. li tax Macky Sall bañ bu dem parce que day bañ mu dem nekk genre Winnie Mandela day bañ mu dem nekk genre Winnie Mandela nekk kër Sonko xale yi gën a am jom foofu xale Casamance bu Anna demee dañuy gën a am jom Mos Angelo lu mu waxati

Macky Sall amul fenn fu muy seeti kër Juan Branco mu bàyyi ba 9h30 ci guddi mu yónni 50 gendarme xaw ma bip ñu dem kër Sonko jaxase foofu yëpp est que loolu sa normal pendant une de temps est-ce que loolu sa normal donc mi ngi traumatiser Anna mu ngi traumatiser Sonko est-ce que Anna Diamanka dafa war a toog moo soxna Khady Kébé est-ce que dañu war a toog ñoom tamit Sonko di def lii yëpp te ñoom te ñoom amuñu ñu war a def bu fekkee li ñu wax dëgg la dañu waroon dem Casamance vacances ñu ne leen doo leen dem. man nak limay proposer moy moy ana xamna xam ci ban condition la nek suma né ana nak damay waxale aussi soxna xarit Kébé ana ci xamna ci ben condition la jëkkëram nek parce que waji ji tuddu chef protocole bi ki Ndiaye chef protocole protocole bi nan la tuddu Sidi xawma xawma lan Ndiaye Sidi xawma xawma xaw tuddu chef protocole bi Ndiaye Sonko mom day dem hôpital bu demee hôpital principal dina gis Sonko bu gisee Sonko wala avocat yi wax ko avocat yi gis Sonko dañ koy wax Sonko ci ban condition la nekk bu waxee Sonko ci ban condition la nekk kooku kooku day dem ci Anna mu ne ko Anna ah sa jëkkër 14 jours nga ne lekkul sa jëkkër sonn na sa jëkkër mi ngi waaj a dee bu dee dee waaj a dee sa jëkkër mi ngi ci coma sa jëkkër mi ngi waa Jibi Njaay waaw kay Jibi Njaay Jibi Njaay day ñëw. mu mu informé Anna parce que moom la doon indi lekk ak lépp kon aana situation bi sonkoo nekk moo xadi soxna Xadi Kebe ñoom xam nañ ñun li ñuy ñaan aana mooy leen bu demee ba sonkoo nekk situation bu garaaw a garaaw te waa Pastef waxuñu moom warul seetaan jëkkëram génn àdduna te waxuñu ko ñun parce que xëy na moom bu génnee mu wax xale yi dinañu génn ñu dem libéré Sonko mos Angelino foofu laay waxee man lépp loo xam ne mën nañ ko def ba ba xale yi génn dem génne Sonko dama su ma ko xalaatee dama koy wax xam nga waaw léegi nag ñu bari ñu ngi bind fii di wax naan Baye Ndiaye waxul dëgg ak na fii génn fii mais même bu Baye Ndiaye waxul dëgg même bu Baye Ndiaye ñun xam nañ ne Macky sàll mayul jàmm Anna jamankaa mayul jàmm Soxna Khady Kébé mayul jàmm Boy Soyebu ndax Branco ñom ñoo la gënoon xam ne nekkul kër Sonko ñom ñoo la ko gëna xam ñu dem tay ko 9h ci guddi nga dugg kër jamm te lér na mané amuñu sax li ñuy wax li américain di wax warant warant moy këyit bi nga xamné mo lay permettre ben ben décision du juge nga ñëw def perquisition kër jamm lér na mané amuñu woon mandat de perquisition parce que Macky Sall wul juge faalewu Antoine Diop Diome wul juge wul dara lu leen neex lañuy def. ce sont des lâches ce sont des lâches parce que des ay gentleman des nga politique da gentleman xam nga affaire Nous la mais affaire sommes des def ndax Nous rek des dem Nous sommes des ay sommes rek fa sommes nga policiers ñuy Nous sommes loolu yëfu Nous sommes la. yéen bu fa Sonko nekkee bu la des sax ngeen dugg mais prison ngeen dem di sommes ah, mandat de perquisition sommes dugg kër jàmbur di tur di gën a terroriser Anna Diamanka loolu tax nag Anna dafa war a génn mu fayu mu xeex Willy Mandela ba ñu tëjee jëkkëram toogul seetaan dafa génn di xeex di xeex di xeex aana c'est pas ñun lu ñu koy wax mooy génnal loo mën a wax waxal waaw sa jëkkër nag bu fekkee ne moom moo la jox ndigal mu ne la toogal ci kër bi laa sa jëkkër la ko jox moo la jox ndigal waaye man li ma lay wax mooy

nga wax video boo xam ne vidéo boo xam ne surtout vidéo boo xam ne dafa dëgg waxuñu la nga def théâtre waxuñu la nga def dara mais man damay yaakaar ne koo xam ne bëgg na jëkkëram parce que mu doon yuuxoo keroog noonu da ngay xam ne bëgg na jëkkëram te boobu jëkkëram defagul grafé deful dara bu dee jibi dafa ñëw mu ne ah ana ana génn ah ana Sonko sonn na de yow ba nga ñaanal ko de ah mën na am génn àdduna su ma doon aana damay génn ma informer patriote ma ne leen xale yi jóg leen te buy wax buy wax ak ana buy wax est-ce que ñun rek lay waxat waxul ak ñun parce que buy wax comme marabu yi la wax ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy euh, libéré nit ñëpp du ñu libéré nit ñi buy wax waxul ak ñun day wax ak sëñ Muntaxa buy wax day wax ak Baye Maye ñas buy wax day wax ak euh, sëñ Babacar Sy day wax ak ñooñu pour wax leen hey hey jëkkëram mi ngi waaj a dee te jëkkëram bu deewee dëkk bi mën a tàkk comprendre bu ko defee nag faale ko. laa mu xam ne au moins def na euh, def na lu mu waroon def de toute façon man li ana bu ko defee ça va bu ko deful ça va mom moy xol parce que xawma lan la ko jëkkëram wax wala kon kon ñun li dañuy proposer rek dañuy proposer mais bu dé président Sonko ci bopam moo ne ko bul def dara sa jëkkër lu mu la wax dang ko wara a mais dafa am benen information bu génn bu buy circuler temps yépp ñu ne président Sonko dañ ko bëgg bayyi balaa màggal loolu loolu loolu il faut que il faut que ñu def ci très attention comprendre gars yi dañ leen di nelawal dañ leen di nelawal dégg naa ñu naan kër Sonko dañ ko barricadé xaw ma barricadé wuñ ko bu dee dañu dañ ko barricadé dañ leen di bëgg gëmloo ne kon dañ koy waaj jàpp pour delluwaat ko këram loolu bu mu leen nelawal parce que loolu day tax gars yi bu ñu waroon génn ci mbedd bi xeex du duñu génn ci mbedd bi xeex xam nga waaw eh li tax ma len di wax ana moy 15 jours lañu tok toog tamit Moustapha Lo Moustapha Lo dañu tok 15 jours on n'a pas vu les hommes comme lek on n'a pas vu les hommes nañu jéem a xool ndax on peut on peut parler aux femmes fi nek lepp lépp lu ñu mën a dañ koy xalat légui limay wax moy patriote bu len nangu kenn nelaw la leen gëmloon né ne Ousmane Sonko dañ koy waja bayyi ci magal bi parce que magal bi sori na torop torop torop man dama may muju xol dañ né magal bi octobre la n'est-ce pas té ñu ngi ci août août sax jeexagul. kon bu ñu fi ndaree toog di xaar Ousmane Sonko fii ba màggal ñu bàyyi ko kon mën na sax dee ci kaso bi waaw kii nee na mi Siré si nous endormé bi laa ah waxoon naa leen bu leen déglu Siré si que Macky am Sonko ah waxoon naa leen moom moo doon wax neen Macky dafa bëgg Sonko c'est pourquoi lan Macky aime c'est pourquoi il dit que Macky aime Sonko c'est pourquoi les barricades looloo doon wax xaw ma ndax est-ce que li ñuy wax gars yi dama leen di laaj dama leen di laaj ce que li ñuy wax dëgg la d'abord est-ce que li ñuy wax dëgg ne dafa am ay barrières yu bees yu ñu teg kër Ousmane Sonko man loolu sax gëmuma ko ndax man gisuma ko fenn gisuma fenn fu am ay barricades waaw déggal kii di wax sacrifier sa femme mais yen yéen yéen yéen yéen yéen yéen est-ce que ça va mais vraiment man nag booy yéen booy yi nag yéen nag Moussa Diatta vraiment Diatta Diatta yéen nag vraiment mais booy da ngeen di da ngeen di kii nag il faut ngeen di analyser tuuti. on ne peut pas sacrifier son corps et vouloir sacrifier sa femme mais Diata, sacrifier son corps, c'est déjà sacrifier sa femme mais son corps, c'est fini ana Diata, Sonko sacrifier Anna Diamanka pour nous pour nous sacrifier Anna Diamanka dañu corps. Sonko Diamanka il y a pas de barricade là-bas merci kon ñiy wax ne dañu barricade ko Sonko bàyyi leen bàyyi leen duñu jox fausse information kon amul benn barricade amul benn barricade mais ñiy wax ne dañ ñun dañoo bëgg sacrifier Anna Diamak xanaa gis leen photo bi mu leen Mais mais photo photo bii ma leen wan benn meeting Ousmane Sonko a indi jabaram ci un meeting politique kon bu leen wax que Ousmane Sonko buggul jabaram politique jabaru Ousmane Sonko elle est appelée à être la première dame c'est la c'est la femme du chef de l'opposition mu neex ko day politique mu bañ ko neex day politique kon bàyyi bàyyi leen di wax ne dañ ko sacrifier sacrifier wuñ ko moom la ñu bëgg lu mu mën a def pour génne jëkkëram si fi mu nekk mu def ko loolu lan moo ci sacrifice Macky def ko sañ a jàpp bu dee loolu ngeen tuddee sacrifice yaakaar nga ne Macky Sall dina jàpp Anna Diamanka lu tax parce que Anna génn na mu ne ah moom jëkkëram sonn na jëkkëram mi ngi waaj a dee loolu rek Macky Sall sañ na ko ci jàpp kon bu len wax ne ñu dañ ko sacrifier waxu ñuko waxu ñuko mu genn ñu len tal tal rew mi lolu mom lolu waaw bu de lolu la sacrifier la parce que boba xeyna mën nañ ko japp waaw eh f f f fal un peu de respect s'il te plaît xam nga un peu de respect quoi man dama ñew fi di di di di di di di def live bo amé lo may wax wax ma ko ndànk avec respect mais di wax laisse en jamanka en paix vraiment du respect quoi waaw boo amee la may wax mën nga bind comme kii jaata lu mu wax xam nga non ana waru ci nekk lii mais di wax en laisse ana Diamanka en paix alors que ñun dañoo ñëw fii di ko xelal parce que xale la jëkkëram xale la man maa mag jëkkëram jëkkëram maa ko mag xam nga waaw dëggal kii naan ma laisse ana on passe à autre chose waaye yéen te ngeen tijji seen seen seen seen chaîne YouTube <laughs> Birmel ñii te ñoo tijji seen chaîne YouTube ngeen dem ngeen def seen live man nag du ma def sama live ngeen ne ma sama live nii lañ koy defee man de li ma wax ana dama koy xelal parce que xamul lépp présidention ko dama koy xelal parce que xamul lépp comprendre nit ki boo amee sa jëkkër nga bañ mu dee ñi ko war a xeexal xeexaluñ ko ah ñi ko war a xeexal xeexaluñ ko léegi da ngay seetaan sa jëkkër mu dee Xadi Jóob bu doon yow nooy def sa jëkkër di waaj a dee nga yaakaar ne boo génnee wax xale yi dina ñu génn wala sëriñ yi dinañu wax sa jëkkër dund doo ko def. bu dee loolu laay wax ñu naan ma laisse Anna Diamanka en paix s'il vous plaît un peu de respect voilà waaw kii nag keneen ki moom mu ngi naan ma léegi passe à autre chose je vais passer à quoi jox ma sujet bopp comme léegi yéen a may jàngal euh, euh, euh, yéen a ma jàngal ah te man li ma wax c'est très man damay joxe sama xalaat parce que youtubeur la te dama ne bu dee nag Sonko moo ne ko hey bul même bu ma doon dee bul génn peut-être bu ko neexee mu def waaw. toujours attaquer Wapastef et Dimanka c'est pas bien aussi mooy là je l'ai fait depuis des jours mais toujours attaquer Wapastef et Dimanka quand moo attaqué Wapastef, Pastef waa Pastef waa Pastef waa def war doit faire pour qu'il se remue les fesses Biram Soleil, yow mosoo ko attaqué mosoo attaqué kenn ci waa Pastef bu leen Birame Souleye bu defee yëfu bu xat duñ ko wax dañ euh, euh, euh, avons dit l'autre là bañ koy japp numéro de 3, bi Bassirou mu avocat mu nek ak avocat japp heures mu xamné li du yoon mu saraxé bopam loolu war critiquer ah, En da ngeen di tok rek parce que défé erreur ñen Ousmane Sonko il faut il faut qu'on fasse fasse une introspection si dee def ay erreur ñu xamné ne nous def ay erreur ñu commencé mais si nous fi nekké di di di personne ne va bouger le petit doigt parce que tamit du yoon du yoon euh, euh, ñu président Sonko nekk ci bi pendant 15 ah, jours il faut que nous disions situer responsabilité xam il faut que nous disions situer responsabilité ñepp xam nañ ne le le le le bureau politique là du PASTEF ils ont failli pour ne pas dire qu'ils sont incompétents qu'ils sont des incapables nous ñu wax ko ñu bañ ko wax li am they don't know what they doing xamuñu def xamuñu amul coordination amul waxtaan amul dara Khala TV sax leen di jox ay chaque jour instant chaque jour ça y nous sommes dañu Nous terroriste japp nañu boy euh djign len dañu bëgg jël ay pont ko ci autoroute bi pour pour paralyser liiraat naa géejawaay fa douze ñu ngi di wër ci commissariat yi ne xamul fan lañu nek di wax leen critiquer c'est normal ñu avons 12 Boy, géejawaay démb lañ leen japp xamul le 10 douze Boy, ñu ngi di wër xamuñu sax ils ont failli ils sont tout simplement inertes n'est-ce pas Ils sont comme hypnotisés, tétanisés, maraboutés. Ils ne nous informent pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et chaque jour qui passe, n'est-ce pas, leur nombre s'amenuise. Il diminue de jour en jour. Chaque jour, nous nous guerre Il faut qu'ils se remuent, et euh, les pèsent. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Fille, le fin de Touré, une stratégie. Nous libérer son corps le vendredi. au dernier moment ngañ Demba Touré daal di waaf lan moo tax ñu waaf daf ma leer ne daf ma leer ne gars yi ko woo ne ko bul xeex mais ñoom duñ ñu informé il ne nous xanaa tey El bind na bind na benn benn benn benn benn benn tweet pas tweet mu ne daal Sonko sonn na man man maa ngi ci YouTube bi man contrairement à vous man damay def sama homework manam damay def sama recherche xaar ma lan la El malik bind xaar ma lire lan la El malik bind mune je dois vous dire que je suis très préoccupé par l'état de santé du du proche qui observe toujours sa grève de la faim je peux dire la même chose pour Fadilou Keita Diop Taïf Anibal Jim, Nit Dof Dengen, Nena, dégg ngeen Comment mu tiital man de El Malik je suis je dois vous dire je suis je suis très très préoccupé par l'état de santé de du proche du président Ousmane Sonko qui observe toujours sa grève de faim ah hein? dengue. L'ol dal lañu am ci ñom lol dal lañu am ci ñom ah man de jaaxle l'ol.

Lo, lu tax nga ñu wax parce que da nga bëgg ñu def dara xeyna lool lool tax mu ñu wax mais yow El Malik, yeen lan ngeen proposer pour ñu def dara yeen do leen proposer dara xexu leen waxu leen marche waxu leen ñu ñu ñu ñu ko kamil waxu leen ñu defal ko ay jang waxu leen ñu dem ci serigne waxu leen taal leen pono yeen dal da ngeen tok rek ne yàcc ñu yeesal kon da ngeen bëgg xaar rek ba mu dé ba mu dé dal ñu taggé ñuko moo tax nag ma ne Anna Diamanka bul xaar parce que man bu ma bokkoon Pastef man bu ma bokkoon Pastef billaahi wallaahi taalaahi man su ma nekkoon Ngagne Demba mu leer na ba mu ma waxee xale yi dinañ ma déglu mu leer na ma xale yi bu ma waxee xale yi dinañ ma déglu damay génn ma ne xale yi usman Sonko mi ngi waaj a dee te Ousmane Sonko daf ñu laaj plusieurs fois est-ce que buñ ma laalee di di ngeen ko nangu xale yi di ko woyal boo ko laalee boo ko laalee dinaa la dóor. Ousmane Sonko daf ñu wax ba euh, euh, euh, ba muy jóge caravane de la liberté nan la ko tuddee calava caravane de la liberté Casamance defe naa Bélingara la ko waxee xaw ma Kolda mu taxaw mu ne est-ce que di ngeen ko seetaan est-ce que di ngeen ko seetaan xale yi ne non non duñ ko seetaan buñ ko jàppee duñ ko seetaan te loolu Ousmane Sonko yàgg na ko wax fu mu dem daka daan wax est-ce que bu ma Macky Sall jàppee di ngeen ko seetaan jàppam bu mujj bii daf ko wax defe naa Bélingara la woon xaw ma. est-ce que di ngeen ma seetaan xale yi ne duñ ko seetaan te xale yi ba ñuy wax billahi wallahi taala xale yi gëm nañ ne duñ ko seetaan xale yi loolu lañ gëm de ba fi mu nekk nii xale yi bëgg nañu génne Sonko mais amuñu général amuñu benn commandant bu leen di wax fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar mais xale yi bu kenn wax ne dañoo trahir Sonko tey lañu ñu gën a bëgg Sonko tey lañu ñu gën a jaaxle nelawuñu lekkuñu naanuñu waaye dañoo jàpp ne. bu ñu génnee dañ leen di jàpp ñu tëj leen yow Antoine Diome dafa soxor Sangaré dafa efficace Antoine Diome dafa efficace jayuma leen ñu ngi dugg ci koñ yi di jàpp xale yoo xam ne seen yoon nekku ci bu ñu nee Pastef nga rek ñu jàpp la géejuwaay nee naa leen lii laa ko léegi laa ko liir xam fa laa ko oh waroon naa def capture d'écran boobu. billaahi wallaahi taalaahi léegi laa ko liir seen web damaa tiit dugg nañu géejuwaay jàpp fa douze xaw ma douze bool lu tax parce que Pastef la noonu la ñuy def. di terroriser booy kenn ñemetul wax yow boo dëkkee HLM nga ne nii gis ñaari camion bip wàcc te ñoom bu ñuy wàcc dañu dañu ay ponkolu nit la ñuy doon ay ponkolu nit wàcc si sa koñ ñu ne eh lu xew ñu ne eh que ñoom Souleymane lañ dem parce que koñ mi ñëpp xamante ne lan la Souleymane def ah jàpp nañ ko yóbbu nañ ko ñoo koy tey comme ça yeneen booy yi bu ñu gisee loolu ku nekk toog sa kër dootoo génn dootoo def dara. Antoine Diome bu amul xeex sax mi ngi jàpp booy ngeen bëgg booy yi génn ci tali bi naan dañuy taal pon ah booy yi dañ leen terroriser Antoine il est en train de sacrifier nos jeunes te buñ leen jàppee amuñu fu ñu leen di yóbbu dañ leen di yóbbu ci ay plage di leen torturer parce que dégg naa booy waaye ñu ngi leen di wër kenn xamul fan lañ nekk maa ko liir sànq seen web billahi wallahi taala leen rek a fi des leen fi des waa Pastef ñoo war a jël seen responsabilité. Nous tangal réew affaire bi Gatsa. la ñun am du élection du dara lepp lu am may commandement élection maire du am bu ñu législatif législative bi xex Ousmane Sonko du am députés euh, euh, euh, le 1er et le 2 juin kon suñu deuxième du

wax nañ leen ba tey bàyyi leen dialogue Ousmane Sonko du nekk ci hôpital 14 jours lekkul ba pare ñu naan ko signer papier bi boo bëggee ñu bàyyi la da ngay signer ah boo demee sa kër après nga ne dootoo wax dootoo génn bàyyi nga politique. loolu la ñuy dialogue ak moom sëriñ yi instant yi loolu lañ bëgg ñu wax leen ko ñu ñàkk leen ko wax El Malick ba mu demee ci Moustapha Diop il y naa une semaine dix jours loolu la wax wax na ko mu ne ñun di ñu dialogue ak paaka suñu put ma ma ne ko dialogue boobu Ousmane mi ngi ci président bi Ousmane Sonko mi ngi ci prison bi de lool la wax Moustapha Diop dama leen ngeen seetaanaan interview bu mujj def ak Moustapha Diop Sonko mi ngi ci prison bi mu naan ñun duñu dialogue ak paaka instant bi dialogue moo jeex dialogue moo jeex yéen gàtt sa gàtt sa lañ leen xam ne mortel combat li ñu bëgg mooy ngeen mel ni makki Sall makki Sall xeexkat la dafa jël cent cinquante mille jox ko benn booy ne demal taal sa koñ jëlaat cent cinquante mille jox ko beneen booy ba mu bëggee tiital Ablaye Wade noonu ngay dialogué boo bëggee dialogue dangay ngay taal réew mi ba pare Macky Sall ñëw nga ne ko ah Macky Sall ne ne waaye waxal xale yi ñu dellu seen kër nga ne ko ah wax bàyyi baay ma ma dem sama kër ba pare mais instant yi koo nekk ci biir kaso bi lekkul naanu ñu mën ko empoisonné parce que gisul docteur am ah dañ koy tëj ci néeg ay ay ay médecin militaire wër ko ñoom Farba Ngom wër ndey hôpital principal jaxate Diakhaté yónni ay nitam ñu ngi wër hôpital principal mel ni ay dëmm bëgg dugg empoisonné Ousmane ko ngeen nekk fi di dialogue lan ngeen di dialogue taal leen ndey réew mi waaw wax leen booy ñu génn ñu taal réew mi boo leen ko deful nag ñun bu leen ñu wax nan la ñuy xeexee bu ñu neexee ñu ne Anna Anna Anna Diamanka génn nga def discours bu ñu neexee ñu wax ko waaw nous dañoo jaaxle marabu ils sont très dangereux parce que Magal Touba bëgguñu mu yàqu nan laa tuddee sama live tey Sonko libéré libéré avant Magal. ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax bëgguñu màggal Touba yàqu ñii ngi naan xaw 200 milliards lañ ci def ak xamul mais ren ku la wax ne Magal Touba ren mën na am Magal bu normal waxu la dëgg Ousmane Sonko bu maara day taali bu nekkee ci kaso bi màggal bi du du euh, doon màggal bu normal te mënul nekk ci kaso bi fii ak bu dee dafa continuer grade de la faim kon nag marabu yi xam nañ ne bu Sonko maare day taali bu deewee ci kaso bi dëkk bi mën na takk te dëkk bi bu tàkkee taalibe yi duñu dem màggal dëkk bi bu tàkkee diaspora nga xam ne ñoom ñoo war xaalis bi bu ñuy ñëw ay millions la indaale aéroport bi day tëj léppay tëj looloo tax na ngeen gis sëñ Abdou Bar Doli, barki demba mu génn muy tag Ousmane Sonko di wax ne jàmm la bëgg gis na Serigne Mountakha Serigne Mountakha di wax jàmm wa Touba mais ñun ñun loolu intéressé wuñu ñun génn Sonko lu tax parce que jam, parce que magal moo tax intéressé wuñu parce que magal bi bu jeexee da ngeen koy jàppaat ne ko rap ci kaso ñun loolu intéressé wuñu lu ñu intéressé mooy ah lu ñu intéressé mooy Ousmane Sonko génn parce que warul n'ek ci prison ngir affaire Adji Sarr vraiment Macky Sall ñoo yab billaahi daf ñoo yab parce que yow Adji Sarr sa juge nee na Ousmane Sonko euh, euh, siiful Ousmane Sonko amuloon fital bu mu teg ci bopp Adji ah léegi nga dem inventé beneen affaire beneen affaire nga inventé corruption de la jeunesse xawma ci corruption de la jeunesse bi nga ne contumace mais contumace nit ki boo ko xasee jàpp. da fay jeex léegi nga ne nono jàppoo ko ci contumace da nga ko japp ci appel à l'instruction Wa mais appel à l'instruction insurrection lan moo indi est ce que est ce que affaire Mame Mbaye Niang indi Dede appel à l'instruction insurrection Adji Sarr nga bëggoon jàppe Sonko ci affaire Adji sar te affaire Adji sar ay kàcc yu leer la Ousmane Sonko ne ma bañ demuma xex leen mortal combat nga ne loolu appel à l'instruction est ce que ne may dégg kon kon moo tax ma ne Ousmane ko dafa war dafa war a génn kaso dem toog këram te boo ko bàyyi mu génn kaso parti Pastef mënoo ko tas boo ko bàyyi mu dem këram ñi ngay jàpp maire yi ngay jàpp di di di di di tëj bëgg a tas Pastef bëgg a rey Pastef di xolli ay photo léegi laa gis Touba ñu ñu même même même lamu lamu lamu euh, Pastef yi bracelet yi ma gis Baye Fall yi jal ko di tal ah mais li ken musu ko gis xaaral ma won len ko yalla nako gis xaaral ma won len ko gis na Touba bay fali euh mako gis gis na dal ben video mu ngi ni xol len ni mais mais li ken xam musu gis de ngeen bay fali ñoy xaar len man li ko waxon duma ko gem xaar leen rek ana ana jal bi gars yi ma deux ngi nii xaar leen ah, maa gis xam tey suba maa ngi leen di wax tey suba maa ngi leen di wax dégg naa Touba ku fa sol lamu Pastef sax dañ koy tere ma ne loolu nag gëmuma ko parce que man gisuma ko waaye bu amee du ma jaaxal vidéo bii xaar leen maa ngi koy xool ma wan ne léegi la mu Pastef ñu jàpp takk ko takk taal ko mu ngi nii oh non mais lii est incroyable ce qui se passe dans ce pays waaw ah, anam ah, kay la mu yaa ngi gis bokku ci gars yi xool leen gis nga ni ñu leen jale nii gis nga la mu gis nga ñu ay ay yeneen façon lam mais yi ngeen di gis vert jaune rouge yi ngeen di gis lamu Pastef la Baay Faal jàpp ko ci fin bi ñu dem ci àll ba mu ngi nii taal ko jëppeet mu ngi nii nga jëppeet ñu taal da ngay seet li gis ngeen gis ngeen mais léegi ñun ban Sénégal lañ nekk léegi lamu Pastef sax amul droit Sonko euh, Touba amul droit sonkat euh, ah Touba nekk na ñaat ak kenn mus lii kenn musu ko gis kenn musu ko gis mës ngeen gis ñu jàpp di taal ay affaire nii hmm. d'accord ay mèche lañ daan taal balu football mais lamu Pastef lan moo ci yoonu lamu Pastef ah man tey suba waxoon naa leen ma ne ah non loolu moom du ma wax ne waa Touba ñu ngi lakk lamu Pastef parce que man gisuma mais léegi weddi gis bokk ci Baye Fall yi ku sol la mu Pastef dinañ la dinañ mën na la sax dóor parce que Baye Fall yi ñu ngi commencé abusé ñu ngi commencé abusé démb man gis naa benn jigéen bu ñu dóor jaar ci ginnaaw parce que dafa maquillage rek la def gis nga lam yaa ngi nii gis nga waaw léegi waaw waaw non non léegi nag li ma leen di expliqué gars yi gën leen laaj gën leen laaj li may li lii moo tax ma ne la Pastef tey moom couleur Pastef sax laa su man Pastef purge moi fa am purge xam nga purge purge moy opération bo xamné da nga bëgg raxas dara ba mu sax nga raxas ko fóot ko fóot bi doy la nga jël ordre de javel sotti pour pour lepp luy tache lepp luy Pastef dañ ko bëgg dindi Ousmane Sonko nak instant bi li ñu bëgg def moy dañ ko bëgg dañ ko bëgg a dañ ko bëgg donté xam nga la mooy comme nga am rek euh, mbam bu bess nga bëgg ko Euh, yar nga bëgg ko tàmmal euh, ngalab xam nga day bañ mais nga topp ci rek dañ ko bëgg yàq yar di ko wax léegi da ngay bàyyi Pastef waxal ne euh, bu buñ la yóbboo sa kër nangul ne doo génn da nekk résidence surveillée dafa am benn papier léegi laa ko sànq laa ko lire ci commentaire am na benn terme bu gars yi utilisé ñu ne loolu lañ bëgg dañoo bëgg Ousmane Sonko mu signé mu wax ne dootul def politique mu wax ne Pastef bokkatul moom bàyyi na élection te loolu loolu Ousmane Sonko ko mës a def comprendre da ngeen dama bëgg ngeen comprendre ne vraiment euh, euh, moo tax nag ma ne waa Pastef kii naan ma bul xas waa Pastef dinaa leen xas parce que c'est des incompétents ay incompétents lañ man maa ko wax man Mister Shake maa ko wax dañoo ragala ragala ragal te ñoom lépp dañ ko bëgg teg ci yoon Macky Sall bandi la booy xeex ak bandi doo dem tribunal booy xeex ak bandi doo négocier Macky Sall faalewul nday tribunal faalewul nday sëriñ gaa yi ngeen baal ma waa Pastef dañoo yaru yaru bu ma ëpp day do everything by the book lépp lu ñuy def rek dafa war a légal nit nag dafa am foo xam ne boo fa tolloo da ngay bàyyi élection nga bàyyi wax waxu juge nga def gatsa gatsa nga def mortel combat parce que boo ko deful sa bopp nga ko def billahi wallahi taalahi ñun ñu ngi leen di avertir Macky Sall da leen di rey sëriñ yi dañ leen di rey dañu leen a bañ a bañ a bañ a bañ a bañ ñoo leen gën a bañ ndax ay lam rek ay lam nga jàpp ko di ko di ko lakk dañu leen bañ il ne peut pas mouvoir des na tuuti lépp lu vert tuubaa xam naa dinañ ko lakk des na tuuti vert blanc kenn dootu ko fi sol ak rouge parce que boo ko solee ñu ne Pastef la barki Rasuul laay nit ki nag boo xamee ne ñi ngay ñi ngay ñi ñi ñi ñi ngay xeexal bëgguñu la ba pare nga ñàkk fayda di négocier ak ñoom parce que ñoom li leen arrangé mooy bëgguñu seen màggal Touba yàqu yow nga mel ni dof toog ak ñoom di déglu mais nit da am xel bëgguñu la bu du loon màggal Touba bi ñu fi nekk di négocier ak yow màggal Touba bi lañuy bañ mu yàqu xam nañ ne fii Ousmane Sonko bu fi deewee dëkk bi mën na tàkk te dëkk bi tax tàkkee màggal du am màggal boo xam ne kenn demu dëkk bi bu amee état d'urgence nan la màggal di amee màggal boo xam ne kenn ñëpp a ragal toog seen kër wala nit ñi amuñu paas waa diaspora waroon ñëw ragal ñëwatuñu un milliard deux milliards yi ñu waroon indi ñu téye ko loolu arrangé wu leen yow nag bu ñu ñëw di négocier ak yow xamal ne looloo tax ñuy négocier nan nga dan ngay négocier ak nit koo xam ne mu ngi tëj sa sa parti tëj sa leader di ko waaja a rey ah? sa parti mu tas ko ah doomu xaraam yi nekk ci ci ci média bi.

am am doom bu jigéen tuddee ko yaay Sidi makhtar xaw am benen doom bu jigéen tuddee ko rakku Sidi makhtar han ah, bëgg bëgg bëgg bëgg muridi saa yu daan def euh, ay live am lan lay commencé ma ngi nuyu sëñ Muntaxa ma ngi nuyu serigne bi serigne ba serigne balé tey wa Touba seen yoon nekku ci parce qu'ils sont tellement pragmatiques ils sont tellement froids ils sont non ils n'hésitent pas à sacrifier ce qu'ils qualifient de brebis galeuses il n'hésite pas à sacrifier des vies humaines pour sauver le système. Le système a ses tentacules. Le système est froid. Le système est impersonnel. N'est-ce pas Aucune vie n'est indispensable. Wow. S'ils peuvent sacrifier Cheikh Chorambake, il va être sacrifié. S'ils peuvent sacrifier Cheikh Barangay, ils ne pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter même Ousmane Sonko ça pragmatisme réalisme Ousmane Sonko lan moo Il faut des fois baxul baxul pragmatisme moy tu n'as pas de sentiment la fin justifie les moyens il faut il faut faire des sacrifices waaw il mu bu waré sacrifier yenn hésiter de di sacrifier bu ndaré sacrifier yenn talibé yi hésiter bay allez-y Cheikh Bara kan moo ko gën a nekk murit musul tardé màggal Touba mais comme moom dafa ànd ak Sonko wala comme moom dafay wax ay waxu Macky Sall daf fiy jóge billaahi wallaahi taalaahi Macky Sall daf fiy jóge wala barke alxuraan Macky Sall dafay jóge barke Serigne Touba Macky Sall dafay julli loolu lañ ko bëggee puniré loolu lañ koy puniré la nii parce que loolu la waatoon te loolu mooy li am mais ñoom Macky dañ ne xëy na loolay am de waaye doo ko fekkee dañ ko bëgg a rey parce que li mu wax moom moo moo moo nekk Macky Sall doo toog 2024 Cheikh Bara waxoon na dëgg. Macky doo toog parce que génn nga yow sa bopp nga ne doo def troisième mandat xëy na nag mën nga forcer nga toog même même man ba muy wax loolu dama ne ko Cheikh Bara defal ndànk yàlla rek xam mais mais dama bëgg ngeen xam ne loolu loolu loolu mooy mooy problème bi comprendre nga say ennemi Ousmane Sonko dafa war a wane pragmatisme ñii dañ laa war dañ laa war ñëpp la war sëriñ yi dañ laa war mais saa yu ñu soxlaa rek nekk fi dina nax di yónnee Macky Sall bayi ko bu leen ko reyagum man xaw ma sax nu mu koy waxee nga dee moo leen arrangé billaahi wallaahi taalaahi man boo leen man su ma jógee di def sama laay maa leen mag maa leen gën a voyagé ñu ci bëri ci yéen maa leen ëpp diplôme su ma ñëwee di leen xelal doo ma déglu lii waxoon naa leen ko man avant ñuy jàpp Sonko nee naa leen Sonko ñi ko njëkk a rey sëriñ yi la Macky doog a ñëw makki bëgg na rey Sonko lool Macky Sall rey Sonko rek la bëgg Marème Faye rey Sonko rek la bëgg mais du ci premier du ci premier xam nga ni ñu ci premier marabu yi dañ ko bañ parce dafa nangu seen taalibe buy waxu fii nañu bombardé kër Sonko Ahmed Khalifa Niass waxu nañu bombardé kër Sonko euh, euh, Tidjani lan la def pour sauver Sonko. Euh, euh, euh, nu mu tuddati sëñ mu Mountakha ak ak Mouride instant bi ñuy wax yéen lan la ñu def pour sauver ko ñoom au contraire nee nañu jàmm moo am ci réew mi dégg nga lu lu sëñ Bass wax gars nit day am dégg-dégg il faut savoir lire entre les lignes sëñ Abdou sëñ booy bas dafa ne jàmm am na ci réew mi te li tax jàmm am ci réew mi Serigne Mountakha moo tax waa léegi jàmm réew mi mooy lan. ñi fi nekkoon di sonnal nit ñi gatsa gatsa mortel combat taal pënë lu ne ñu dugg fi ñooñu nekkatuñ fi parti bi fi nekkoon di wax yooyu tas nañ ko ah parce que après la ko wax dafa bàyyi ba ñu tas Pastef dafa bàyyi ba manifestation amatul dafa bàyyi ba ñu tëj lu mat mil ci ñun mu bàyyi ba ñu tëj Sonko Sonko def presque dix jours guerre de la faim ñëpp naan dee nag deewul Pape Alé Niang di waaj a dee Cheikh Bara di sukuraat moom mu génn mu ne jàmm am na ci réew mi mais yéen est-ce que ça loolu ku mu doy lan moo lay day loolu mooy ñii ñoo fi indil woon jàmm ñii ñoo ñooy nitu fitna te te te nitu fitna yi maîtriser nañ leen Bouba Ndour nee na Pastef conjugué au loolu looloo tax mu génn te Cheikh Cheikh Bass nee naa leen daf leen bëgg won wan ne yëf yi du Macky yëf yi moom la parce que bu ne jàmm bu amee fii du Macky sàll seen muntaxaa la te bu ñu nee Serigne Mountakha Cheikh Bass mooy Serigne Mountakha ndax moom mooy porte parole moo ko gën a nekk jeune moo moom moom moom la Youssou Ndour fan Youssou Ndour toog na ci suuf ne Cheikh Bara man damaa bëri ay xale yi dañ naa fan mais yow dama laa fan te loolu loolu bu ko Youssou Ndour waxee il y a presque trois ans quatre ans parce que xam na lan mooy lan la Boy Bass capable ak lu mu capable booy Bass nag il a réussi son plus grand coup depuis ba mu nekkee porte parole ba léegi sa plus grande grande parce que Ousmane Sonko moom. ku ku ko ku ko ku ko ku ko jàppalu wala ku ko tëj ku ko maîtriser kooku def nga lu rëy mais nag dañoo naagu parce que jàpp Ousmane Sonko yomb na téye ko moo jafe jàpp Ousmane Sonko dëkk bi ne selaw loolu moom ñëpp xam nañ ne mënul nekk bañ ko jàppee ba léegi ñaata booy ñoo deewagum lu mat huit booy dee dee ñaata oto la ñu taal ñaata. Euh, euh, building la ñu taal et et cetera te ba ba fa may waxee ñee dafay continuer kon man li may wax rek mooy man Mister Shake bu may wax dooleel ma déglu dama bëgg ngeen déglu ma bu baax billaahi wallaahi taalaahi neewoon naa leen wax naa ko ci kay soof Macky Sall mënul jàpp Sonko moom xam na ne mënul jàpp Sonko parce que risque yi ci nekk la parce que amuloo loo koy jàppee légalement affaire Adji Sarr ñëpp xam nañ ne ay caaxaan la affaire Mame Mbaye Niang ñëpp xam nañu ay caaxaan la légalement mënoo ko japp motax tax Sonko ne makki mënoo ma japp deuxièmement boko jappé do am jam parce que dëkk bi day tak la preuve dëkk bi tak na loolu tax ma ne leen bii paa bu ko jappé yàqu ngeen dootu leen gis Ousmane Sonko daf ko bëgg ray Ousmane Sonko tank mi ngi noy sëriñ duñu am jam Macky Sall du am du am jam dama bëgg ngeen déglu ma bu baax li may wax ni li may wax ni c'est très important dama bëgg ngeen déglu ko parce que man du si nekk di layam layam dama ne Ousmane Sonko tant que mi ngi noyyi sëriñ yi du ñu am jàmm Macky Sall du am jàmm xam nga sëriñ yi kañ yaakaar nañ la am jàmm xam nga kañ lañu am jàmm sonkoo dee parce que ñoom xam nañ ne nit la koo xam ne kenn mënu ko téye keso Pape Alé Niang kenn mënu ko téye kaso. boo ko tee kaso mu mu yuuxu àdduna bi yëpp commencé waa Belgique gis nga dañu génn tubaab yi génn commencé wane ay pancarte Pape Alé rek kenn mënu ko téye kaso Cheikh Bara sax kenn mënu ko téye kaso ndax gis nga famille am génn na fi démb def boucan léegi ñu bàyyi ko Cheikh Bara léegi ñu bàyyi ko parce que du ñu seetaan mu dee na continuer grève de la faim fii ñetti fan ñu bàyyi ko mën naa leen ko wax est ce may dégg sëgam mënoo téye Cheikh Bara mënoo téye Pape Alé Niang wax Ousmane Sonko buy grève de la faim fooy jaar ba téye ko rey ko rek nga mën a def am jàmm léegi ñoom dañoo toog avant ñuy jàpp Sonko wax naa leen ko ma ne leen Mister Shake man sëriñ yi toog nañu Macky Sall toog sëriñ toog Barthélemy toog Khalifa toog ñu toog ak ak ak général Moussa Fall Antoine Diome Ismaïla Madior Fall kàngaam yooyu toog nañu Amadou Ba duñ ko jubóole wóoluñu ak Macky Sall ñu toog ñu ne fii ñaari yëf fi am ñaari yëf fi am Ousmane Sonko day nekk président mu rey ni ñun ñëpp loolu moom dafa wóor buñ ko bàyyee day nekk président te bu nekkee président ñun ñëpp dee nañ gis ngeen mu ngi nii yóbbu nañu CPI déjà voilà wa ilaa ñu rey ko waaye buñ ko reyee tamit ah ñu nit dinañu am problème mën nañ sax mën nañ ci dee tamit bu nekkee président ñun dañuy dee parce que nee na ñëpp lay ñëpp dinañ dem yoon xëy na Macky moo am immunité Macky moo am te day wax lii rek kon buñ ko bàyyi mu nekk président ñun dañuy dee dina nangu suñu xaalis dina nangu suñu kër dinañu tëj sëriñ taalibe yi li ngeen bëggoon ci moom ñu ñëw du su jotal taalibe yi dañuy commencé naan day yàq système bi kon benn option boobu baaxul waaye option B bi tamit baaxul ndax buñ ko reyee xale yi mën nañu mer boo xam ne dañuy ñëw rey ñu ñun ñëpp choisir Nous réfléchir réfléchir plan B nous nous jël dañ de parce que ñun façon de nañ ba nous ko plan buñ nous am une semaine deux semaines lu mu deux semaines après nous nous buñu ni ñu ñu sëñ Mountakha jàppale ñu ci ak Baye Fall ñu maîtriser Touba dinañu am chance ñu ci te te option boobu option boobu moom la def nii moom la def nii moo tax nag moo jàpp Sonko du lu ñu jàpp Sonko rek ko muy muy Khalifa Sall muy kenn tax kenn tax dama ne réunion nañu man maa ko wax man Mister Shake su ma nee réunion nañu nag da ngeen di am dégg-dégg su ma nee réunion da ngeen di am dégg-dégg du questionné sëñ Mountakha dafa toog wala Boy Bass toog wala euh, ñoom ñëpp toogandoo déedéet ay réunion lay doon ñëpp gis nañ ne Macky dem na Touba 22h30 ñëpp gis ne Cheikh Cheikh Bass Ba Abdou Khadre dem na Palais temps yii la yéen a ngi fàtte Barthélemy Diaz dégg nga gisante na ak man. ay réunion yu bari lay doon qui est pour qui mais ñii ñoom mën naa leen ne toog toog nañ Macky Ismaïla Madior Antoine Sangaré Yàgg Moussa Fall ñooñu ñoom toog nañu ñu ne kii kii il faut que ñu rek waaw il faut que dañ koy dañ koy éliminer loolu moom ñoom dañ ciy d'accord billahi wallahi taala dañ koy rey parce que buñ ko reyee du ñu am jàmm c' est ça le problème gars yi nañu wax dëgg Ousmane Sonko li li li li Titi woyoon dina xaw ma dafay bëri pax Ousmane Sonko dafa sob dafa bëri pax dafa lakkale. dafa dëgër bokk du bàyyi moom président rek la gis la preuve mi ngi nii ci dugg ci dugg ci prison di bind lettre lettre de désistement xaw no non pas désistement xaw ma sax lettre bu ñu ko tuddee gis mu bind di wax ne d' accordul ci affaire Adji Sarr ñoom Macky ne bu ñu déggee bu gisee loolu mais dinañ ne mais kii mais booy bi nag moom moom kon booy bi mi ngi ci mi ngi ci waxu élection ba léegi rey koo li ñu bëgg mais dañu amul occasion pour rey ko amuñu occasion pour rey ko parce que Ousmane Sonko mayu leen parce que Ousmane Sonko dafa dugg rek def grève de la faim gis nga Sonko bu duggoon ragal ni xaaral ma xaar gars yi une semaine la ñuy toog mu ñu toogee une semaine xale yi defuñu lu ñu war a def. Ousmane Sonko di lekk xaw ma aana moo ko ko indil xaw ma prison bi ñoo ko ko jox dinañu fexe ba empoisonné ko buñ ko mënul empoisonné comme ni ko bàyyi Ndiaye waxee euh, néeg bu mu tëdd dañ koy peinture peinture boo xam ne boo ko nooyee dalay feebar wala lal bi mu tëdd ñu ñu wis fa ay de wala ñoo xam wala ñu def comme ni ñu def euh, euh, imam Ndaw bàyyi ko ba mu tëdd guddi parce que nelaw dafa fort gars yi nelaw comme dee. man ça yu 10h su 11h. des fois straight 5h du matin là yow man dama nan entre minuit et 5h du matin nit mënul dugg sama nek pompe Pis, pis, ñaari pompe rek nga ko mu indi la cancer dans 6 mois est-ce que yéen a may dégg kon ñoom Ousmane Sonko nekk vous loxo bu de la exposé boppam même instant bii sax lu mu principal tanana, tanana. mais ba il il est exposé parce qu'il est entouré de médecins militaires le l'hôpital est entouré de de de wa BIP ñoo fa nekk ak waa ñu ma xamul seeni élément la lu ñu bëgg duggal ci négu Sonko di ngi fay duggal. perfusion yi ñu koy defal ñoom ñoo yor ñom ñoko maîtriser luñ ci bëgg def Ousmane Sonko yalla rek moko mëna mën mais il est en danger de mort parce que comme ni ma leen ko waxé dëmm bu tijji jardin d' enfant wala école maternelle nga xam ne ñii dañ leen di tam dëmm nga wër wër wër foo yóbbu sa liir wala sa doom amoo nga ne ah xaaral ma gëm yàlla rek jox leen ko parce que man su may liggéey il faut am ku ma téel sama doom boo ko defee nga jël sa doom sa liir nga jox ko dëmm bu tijji jardin d' enfant wala école maternelle loolu mooy boo toogee trois jours ñu tàggee la sa doom ñu ne la dafa fatt wala ñoo xam yaa ko def ñun waa Pastef dañoo jël Ousmane Sonko ñu jébbal ko ay dëmm Marème Faye Sall dëmm la nooxóor la Macky sàll doomeram la dëmm la rey katu la Antoine Diome moo ko jàngal rey Sangaré la commissaire Sangaré mu nga xam ne moo rey Mankabo ñoo ko jàngal rey général Moussa Fall xaw ma ndax rey katu nit la waaw bokk na parce que ñoom Didier Badji ak yooyu loxoom takk na ci ay doomeram lañ ay franc-maçon lañ seen xol moo dëgër te sëriñ yi xam nañ ne ñii ay reykatu nit lañ mais la fin justifie les moyens nous pour sauver euh, euh, euh, pour sauver l'islam ah, sacrifier nous sacrifier société occulte la amuñu amuñu iman xamuñu nous Nous bi du dara gis nga bi dara ndax loo ko am am am téeméer at nga feebar dee ana Dos Santos nekk na dictateur Angola ba ba muy dee mu jël nguur gi joxe ko waaye ana fan la mujj dafa dee dem waaye njabootam instant yi am nañu problème ndax doomam ñu ngi koy wër Mobutu dirige rey na Lumumba rey na Lumumba nekk Zaïre xaw ma 30 mais nan la mujj dañ ko mujj dàq mu am cancer ci gaal ngeen baal ma testicule xaw ma ci xuur yi. xaw ma prostate la am xaw ma dee bu ñaaw ana euh, euh, wax leen ma xool leen Xadafi gis ngeen li ko dal Saddam Hussein kan moo ko ëppoon xaalis man pétrole la yoroon ay multi milliards de dollars la amoon fan la mujj alalu àddina jaru ko jarul di rey ay nit mais ñoom dañoo réer réer ñun ñëpp ay sénégalais la mais àdduna xamuñu ci dara ay moo tax baadoo la kenn du ko jox nguur Marème Faye mooy baadoola bu gën a mag mooy Marème Faye vrai baadoola yow nga nekk nit ku ñuul nekk ci dëkk boo xam ne dafa ndóol ah nga gis say xale ay xale yu ndaw ah ñu leen di jur di leen yégal ci ay saret hôpital euh, euh, village yi amul hôpital tali yi bon accident yi di am chaque jour ah yow nga nekkoon ci dëkk dégg naa New York bii da nga fi ñëwoon di di Moodu Moodu Marème Faye ba ñu nomee Macky Sall ak Marème ñëpp di tàccu ah ñu ngi doog am couple président Sénégal ah boo demee palais cuuraay bi mi ngi jolli lépp a ngi jolli mais yéen ngeen mel ni ay tubaab tubaab bi sax daanuñu def ni ku la wax li am rëbës ah ay xale yu ndaw ay sénégalais comme yéen seen i doom nga jàpp leen lu mat cent deux cent nga dugal leen ci kaso ngir lan parce que da nga bëgg a toog troisième mandat lu ko fi jar 4-4 jar na ko bu dee 4-4 sàcc nga sàcc nga deux cent milliards. ñoom man ñoom Macky Sall li ñu yor si xaalis li ñu sàcc mat na cinq cent un milliard bu dee loolu ngeen bëgg nëbb ba mu jaral leen ngeen di rey xaw ma ndax safara am na wala amul xaw ma ndax àjjana am na wala amul waaye li ngeen di def jaru ko ndax yàgg yàgg da ngeen di dee soit dañ leen di rey wala di ngeen def ba nekk màgget te bu boobaa di ngeen xam ne dara jaru ko mais du fa façon genre mel ni kenn du négocier ak yow sëriñ yi ngeen topp jaruñoo topp ndax Ousmane Sonko dafa am victoire ci yéen. billaay wallaay taala Sonko dafa am victoire ci yéen daf leen wan ne société bi ay workat rek a fi nekk foo dem workat la buñ la nee xaw ma banaaya la tudd xaw ma xale boobu nan la tudd xaw ma lan banaaya awa banaaya yow boo siwee Pape Diouf moo tax nga siw xoolal ma naan Pape Diouf Sidi Diop moo tax nga siw ku ma xam-xam ne man damaa fan Waly Seck la fan la fan fan kii la kooku xale banaaya boobu nan lay bàyyi Pape Diouf nan lay bàyyi Sidi Diop. di dem ci Wally Seck te yow nga def fi lu ne lu ne weñ sextape sextape ñu wane la ci ci ci YouTube bi ngay sëy ak góor boo xam ne du sa jëkkër Sidi Diop na xool loolu mu dàq la mais xoolu loolu mu mu mu jël la téye la tey ñu toog dégg ñu naan banaaya boobu bàyyi na war na Sidi Diop dem na ci Wally Seck parce que Macky Sall moo wone ne wor mooy norme bi Barthélemy Dias mo wone ne il faut que wor nga wor Khalifa Sall wone ne il faut nga wor Serigne tamit jangal xalé yi ñom Banaya bu attaqué ko moko parce que limu def dara nekkul bu ko nexe mu dem ci wali Seck mais dama la bëgg expliquer gis nga man bu doon man duma dem ci wali Seck ci Sidi Diop lay top ndax wali bo nga dem mëna la dakk ëlëk ci biir mëna la dakk gis nga gore dafa bax est-ce que yaa mais société sénégalaise dafa dem ba yàqu ñëppay wor ñepp ñepp xolal Ahmed aydara num ñu def xolal euh euh ki num ñu def nu mu nu mu tëddati euh, euh, Aïda Mbodj ni mu war a Sonko parce que kii ne dix mots consent ku waxul dara danga nga ca bokk xoola gàccee faal nu mu ñu wore ah sëñ Moustapha Sy dafa jëkk du ma wax wor mais moom da moom it dafa jékki-jékki rek neutre c'est vrai que moom avertir nañu nee nañu xanaa doo leen toog ñu sot sotoo Ousmane Sonko ba mu koy wax il y a un mois ba mu koy wax il y a un mois xanaa doo leen toog ñu sot sotoo Sonko xëy na il est impuissant rek te li mu wax moo am dañ ko sot soto barke rasul laay lu tax parce que parce que ay senegal moo bëri jaam Ousmane Sonko nag mission booy seet daf ko accomplir parce que lu ñu musuloon gis Sénégal ku ma ne woon mbëri dinañu trahir seen fans ku mel ne Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène mi sax mi dem ba génne pistolet ci li ñu wax keroog pistolet la génn di dàq ay booy ku la waxoon Gris Bordeaux ñooñu ñëpp dinañu toog di tagg Antoine Diome Balla Gaye naan Antoine Diome sa liggéey rafet na Modou Lo di wax naan ah ñun Sénégal xamuñu violence jàmm nañu bëgg dugg na fii génn fi foo dem yenn journalistes yi jaay seen ngor nga toog dégg ku mel ne ay Omar Faye di wax waxu dof nga dégg Thierno Diop di wax waxu dof Binta jàll génn di wax waxu nedd ko bandu di wax waxu jaam naan man sama justice su réew dama kaa gëmm te yow nga gis ne justice bii Mamour Diallo dafa utiliser Adji Sarr def complot ah nga naan damaa gës gëm sama bitu réew nga dégg ku mel ne euh, euh, Aïssatou Diop Fall Ousmane Sonko dafa war a mos dafa war a mos nga dégg Bouba Ndour di wax la euh, le Pastef est conjugué au passé mais Sénégal dëkku jaam la man su ma doon yàlla damay damay mbugal Sénégal parce que yonent yàlla loot la xaw ma dëkk dëkkam dañ ne ay góor jigéen moo fa nekkoon.

yéen war a am fulla ak fay gis nga nit nga dee nekk martyr nga dee nekk martyr moo gën nga nga nekk fii di négocier Ousmane Sonko na bàyyi négocier ak Macky Sall ak sëriñ grève de la fin bi na ci dem na ci dem ba saf bu deewee mu xam ne jaanam wàcce ne la fii la ko yàlla tuddee noonu rek la mën a def pour jëlee fi ñi ndax bu deewee si seen loxo dinañ ko fayul loolu rek ko dese Ousmane Sonko loolu ko dese mu xex bu mu négocier gars parce que gars yi dañoo bëgg mu dindi grève de la faim après magal passé ñu ne ko rek déyal ci kasso bu xasse dindi grève de la faim day dé ci kasso soit day continuer di lek ñu koy empoisonné nank nak wala mu nekk ci kasso bi 2 ans 3 ans 4 ans dem ba nekk Mamadou Dia Ousmane Sonko loolu ngeen ko ji loolu ngeen ko loolu ngeen ko yéene bu mu négocier. na def grève de la faim bu deewee ñun nañu préparé suñu bopp xëy na ana Diomaye Faye dafa préparé boppam ne garaawul na Sonko dee xëy na loolu ko Sonko wax bul wax bul def dara man sama bakken dama koy joxee ci mbir mi bu ko xasee def ñoom dañuy am problème Ousmane Sonko bu deewee ci kaso makki Sall day am problème fa waa Casamance duñ ko ko baal duñ ko ko baal ñoom ñëpp lañuy rey amul sëriñ amul Macky Sall amul Marème Faye Sall amul ay Mbodj amul Gathie Fall amul ay Ahmed Aïdara amul Binta Diallo képp kuy traître képp ki nga xam ne da nga da ngaa wor Ousmane Sonko jàpp leen ne bu sonkoo deewee booy booy dinañ ko fayul loolu moom il faut mu leer seen bopp ñun nag duñ fi nekk ngeen ñuy nelawal saa yu ñu waree xeex rek ngeen fexe ba génne ñu ci xeex di ñu gëmloo non non dañ koy bàyyi mu dem këram ñu def ko résidence surveillée après lii wala lii wala laa bokk ngeen bokk leen bu leen ma wax wax élection rey leen Sonko moo ñu arrangé sax ci benn côté rey leen ko comme ça ñu jëlee fi système bi gars yi ñu commencé taw waaw rey leen ko Sonko bu mu dellu ginnaaw ñun nag yàgg nañ digal Sonko mais kontaan naa ci moom waaw vraiment kontaan naa ci président Sonko ndax man ba mu defee grève de la faim dama ne ko présidence Sonko. boo dindee grève de la faim ah di ñu tooñ waxoon naa président Sonko Adji Sarr mii boo demee ci ci atte Adji Sarr di ñu tooñ de ndax yow yaa waxoon terminus di ñu tooñ bul dem demul Cheikh Bara naan ko demal mën ne ko bul dem ma ne président Sonko boo demee ci dialogue bi di ñu tooñ Cheikh Bara ne ko garaawul demal ana Cheikh Bara tey Cheikh Bara mi doon wax Adji même boo fa demee ci procès ba même bu doon maree moo fa nekk kii nekk quoi Farba Ngom nekk juge bi duñ la mën a jàpp Cheikh Bara lool la waxoon mais moom dafa xamul ni Sonko violé bañ a violé buñ ko jàppul ci viol jàpp ko ci leneen mën na nañ ko indil euh, kii de la jeunesse corruption de la jeunesse Cheikh Bara lool la calculé wu moom dafa yaakaar nekk comme am preuve amul rek dañuy bàyyi Ousmane Sonko Macky Sall dafa faale nday preuve xam nga lan lañ bëggoon. Ousmane Sonko constitué wu prisonnier foofu tamit dama ne ko boo ko defee du ñu toll Sonko bu joxe sa bopp xam nga lan la bëggoon Sonko bu joxoon boppam ci affaire Adji Sarr bi day dañ waaye dañ koy jàpp ci dañuy indi ay charges yu bees ne ko comme joxe nga sa bopp yow yaa fi defoon appel à l'insurrection léegi jàppetuñ la Adji Sarr gis nga yëfu doomeraam yi ñuy def boo joxe sa bopp ñu ne affaire Adji Sarr bi nul la d'accord. waaye yaa fi yoxoon appel en instruction ñu génn affaire yu bees duñ la bàyyi de téy la boo joxewul sa bopp ah ñu ñu ñu ñu ne contumace contumace bi baax na ba léegi kon lu mu def euh, euh, euh, lu mu woon def Macky Sall da koy jàpp comprendre kon nag ni ñu digale woon Sonko ne ko bul def loolu defu ko mu gis ci ndam noonu lañ koy waxee grève de la faim bi bu ko bàyyi

te lii ngay def nii boo ko defee sax doo dee ndax Pape Alé Niang def na ñu bàyyi ko Cheikh Bara Ndiaye ñu ngi koy waaj a bàyyi yow nag xëy na ñoom duñ la bàyyi de waaye ñun bu ñu yëgee yaa ngi waaj a sukuraat xale yi dinañu génn il faut nag avocat Sonko jël responsabilité bu ñu demaatee une semaine te Ousmane Sonko dindiwul grève de la faim ñun ñoo war a jël suñu responsabilité xam ne nag nit bu doon warul mën a toog ñetti semaine lépp. normalement on a deux semaines président Sonko connecté. responsabilité mais en tout état de cause li que le président pros mooy la grève de la faim grève de la faim beaucoup grève dit, dañ lay la si vous lois, ko def di nga def ne grève de la faim il faut ñu toogaat 15 jours amul sens nit ki boy xex da ngay xex mais doo xex ba ci yàgg nga bàyyi delu ginnaaw te president Sonko sax dafa mel ne bëggul dellu ginnaaw kon ñom El malik nañu xamne Sonko dernière chance bu ñu am pour gagner Macky Sall moy mu def grève de la faim bu deewee ci grève de la faim bi gagné na buñ ko bàyyee gagné na li tax ma wax leen bu defee grève de la faim gaay tit tiit ko mu ñibbi gagné na bu defee grève de la faim gaay yi ko mu dee. Ousmane Sonko gagné na xam nga lu tax muy gagné màggal Touba du am xale yi dinañ génn dinañ ko fayu te am na nu muy demee ñu jëlee leen fi ndax dëkk bi mën na fi tàkk-tàkk boo xam ne Macky Sall gaa yi dañ armée bi da koy rey mu jóge fi maanaam jóge fi mais loolu victoire la ci Sonko nga rey Sonko armée bi rey la wala population bi rey la rey la waa APR yëpp loolu loolu kan moo am ndam Sonko moo sacrifié wu pour pour Afrique parce que nit ku dee boy dé nak da ko jar voilà gars live bi loolu la bàyyi leen ma def li tay euh, xaaral ma lire fi rek quelques quelques commentaires pour vous dire pour vous dire rek que que buñu ñu tombé ci piège dialogue pour jéem sauver Magal Touba ñun loolu ça nous intéresse pas voilà dialogue parce que da ngeen ragal son ko dé ci grève de la paix ça nous intéresse pas li c'est un moyen de lutte c'est une arme pap Alé Niang utiliser le ko mu réussir Cheikh Bara Ndiaye normalement war na réussir pas. Qui on ne souhaite pas que son que soit moi ne soit pas si pessimiste. Quel pessimiste nit ku dul dee amul Massata Diémé xanaa yow dégguloo li ma la wax Sonko bu bu deful grève de la faim Macky Sall da koy rey Macky Sall dootul bàyyi Sonko mu génn da koy rey te rey boobu mooy gën a ndax tëj la di la empoisonné ndànk-ndànk moo gën a métti nga xeex mooy sa dernière chance mais xeexal nit ku dul dé amul on ne souhaite pas que son meure Lola tax ñu wax ko li moy dernière chance pour mu dund xanaa yéen do len réfléchir pap Alé ñaan nan la def bu dund ñaari yoon mu def ko dund Macky Sall pap Alé rek la bañ Mariam pap Alé rek la bañ pap Alé nan la def ba dund dafa né damay kaay ray ma pap Alé mo gëna radical Sonko mom dafa né lekuma nanuma buma ma kenn faj loolu Sonko sax xeyna ñu koy fajj Pape Alé dafa ne lekkuma naanuma bu ma kenn faj mu dem bay waaj a dee Pape Alé avocat am dugaluñu de liberté liberté provisoire dugaluñu ko de dugaluñu de dafa ne leen séréli dafa ne leen hey hey kii bàyyi leen ko mu ñibbi boo leen ko bàyyiwul di ngeen am surprise di ngeen am mbég mbégteel bu weex une surprise très daf ko wax tey suba ñu bàyyi ko Sonko bu defee loolu dañ koy bàyyi buñ ko bàyyiwul

mais plutôt un vrai chroniqueur. Machallah, tu n'es pas en live, vous êtes très pertinent. Merci. Merci. Je vais quelques commentaires. Qui n'est pas allé, de faut mousse. Ah Gaï Beaucoup de foules d'aller. Man, j'ai peur pour Jomai. Jomai fait ragal na trop. Quand on a vu les nuits de Imam daw voilà l'imam daw l'imam Daou, d'accord, on a inventé. Il a encore beaucoup de nous pour Quand même, Malik Maxal a récolté là. eh bàyyil li dégg nga eh, lu tax ngay saaga Pape Alé Niang xanaa yow yow Macky Sall nga bokk effacé leen ma loolu waaye gars yi un peu de respect ah yow yaa ngi yow yaa ngi tagg Pape Alé di ko saaga loolu nu mën nee nekke xanaa da ngaa juub ci li nga bind kay waaw def naa une heure def une heure bokk euh, ma ma teel a parce que temps il faut ma noppalu kii nee na Nefertiti ba ñu jàppee Macky bu ñu jàppee Macky ak Marème dañu len xar ba <laughs> yéen a ngi leen di saaga Imam daw inventé wul mom dañ leen dañ ko don pomp te bamu guéné génnee yaram bi da don metti mu am ay douleur ba dé non la déwé loolu ngeen loolu ngeen souhaité Sonko Sonko a fait ne devait pas accepter de se faire soigner non non non non non parce que parce que non man se faire soigner d'accord na il ne se fait pas soigner mais ça dit

ah kii nee na bu ko reyee Macky moom Macky moom billaahi wallaahi taala bu Sonko deewee dañ koy rey waa Casamance dañ koy rey loolu moom moo la ko gën a xam waaw na dëgër bopp nag mu rek ko moom maanaam Faye Sall yaakaar na Sonko dina dee te xale yi duñ taal réew ñoom li ñuy calculer mooy Sonko bu deewee garaaw xale yi dañuy xeex rek un mois maximum un mois ñu arrêté ñoom loolu mooy seen seen erreur kii ne Mister Cheikh je suis d'accord avec vous voilà gars yi nañ def une heure 7 minutes ku am looy laaj na nga laaj monsieur Cheikh je suis d'accord avec toi merci li may wax rek mooy nit ku dul dee amul gaay Sonko bu dee yàlla nii la tuddee woon ne fii la war a deewee <coughs> dee bu rafet deewu guerrier deewu xeexkat dañ ko war accepter dañu war a préparer suñu bopp waaye dee bi da koy jar Sonko bu deewee en martyr da koy jar mooy il faut que ñu eggali mission bi nag. ñu jëlee fi système bi boobu waa dina ko jar Sonko dee ñu rey Macky rey Marème rey waa APR armée bi jël nguur gi ñu jëlee leen fi loolu victoire la parce que Mali armée moo fa nekk Niger armée moo fa nekk ah, ah, ah, Burkina Faso armée moo fa nekk ak Guinée kon ñun bu ñu reyee waa APR yëpp armée bi jël nguur gi suñu victoire la victoire Sonko te am na nu muy demee sax du dee. Vous continuez grève de la fin, vous da koy bàyyi te Macky bu ko vous bàyyi dootuñu nangou mu jël ko naan da koy yóbbuwaat pas bu boobaa dañuy ne Macky pas, bi muy bañ force a nit te ne te ne mais comme lui, instant yi dafa jàpp ne yor doole Il faut seen pas seen seen seen seen a pas parce que instant yi ñun ñoo xullee ba ñun ñoo xullee ba ñu jekkuli moo tax dootuñu dellu ginnaaw affaire bi day day metti xanaa lenn moo ñu mënoon sauver Macky bu bu ñibbisee kañ la ñibbisi tey wala suba bu ñibbisee xam nga lan moo mën a arrangé Macky bu ñibbisee benn militaire dóor ko bal mu wàcc lan moo tax Macky bëggul toog Sénégal lan moo tax Macky bëggul toog Sénégal trois jours quatre jour rek mu dem làqu daw gaa yi ngi koy rëbb de il n'est sécurité moom moo gën a xam ne il pas en sécurité Ousmane Sonko di ko japp di ko toroxal ba pare tok Sénégal mo xam li tax muy daw di génn Sénégal ñu ngi koy rëbb Macky instant mi may wax ak ñu ngi koy reub mo la ko gëna xam dafa rew rek voilà ki nee on doit tout faire pour libérer Prodac merci si les assassins vont atteindre jusqu'à l'approche du Magal pour le liquider définitivement bala Magal lañ koy ray semaine prochaine mën nañ ko ray comme xam ngeen ko rek c'est bien waaw monsieur Cheikh est-ce que tu penses que Sonko va être candidat en 2024 non non non il y aura pas d'élection. l'élection loolu ba vous leen ko yàggee wax ba léegi mënu leen ko gëm élection mënul am ci réew mi élection du am yéen Macky Sall dafa bëgg tailler le Sénégal ci loxoom Macky Sall dafa am ñu koy jàppale Antoine Diop général Moussa Fall euh, euh, euh, nu mu tuddati commissaire Sangaré Ismaïla Madior yàgg ñoo yor Sénégal Macky Sall kese yoratul Sénégal de yéen yéen ay xale ngeen yéen ay xale ngeen Macky Sall rek yoratul Sénégal Macky dafa bokk Sénégal Antoine jom dafa am doole léegi ndax dafa yor armée dafa yor ay ay policiers yoo xam ne moom la ñu gëm Antoine Diome dafa am ay policiers yoo xam ne gëmuñu Macky Antoine jom la ñu gëm général Moussa Fall dafa am ay gendarme yoo xam ne moom la ñu gëm gëmuñu Macky Macky nag. Antoine Ngom moo ko gëm général Moussa Fall gëm ko benn clique la ku nekk dafa am doole danga nga yaakaar ne Macky Sall li mu am nii moom moo ko moom Cheikh bas daf dafa am doole lan moo tax mu ne Sénégal bu amee jàmm sëñ Mountakha moo tax Macky Sall benn mafia la benn mafia la Macky Sall daf ci bokk rek lu tax Touba day jël indépendance am Vatican lu tax sëñ bas ne sa Baye Fall yi da nga leen xeeb da nga xeeb Baye Fall ñuy def. yow Ba Fall yi moo tax Macky Sall gagné ndax Touba la suñu géré yi nekk Cheikh coro bu bu nekkoon ci terrain bi day génne booy yu taal yu commencé taal Macky Sall victoire bi mu am kan moo ko gën a jox Touba Antoine yéen ba mu leen yàgg avertir Antoine bi defuma fi benn vidéo avant ñu jàpp Sonko defuma benn vidéo ma ma bind l'homme à abattre Antoine Diop defuma ko dangeen ngeen fàtte l'homme à abattre dafa am doole. moo ëpp doole Moussa Fall Moussa Fall ci Antoine Diome la la le la gisoo police ba ñu jàppee Sonko gendarme yi dégg naa ñoo ko jàpp mais gendarme ba ñu ko jàppee li tax ñu ko ci ci ci général Moussa Fall dañ ko jàpp yóbbul ko Antoine Diome. Dior Diagne Antoine Diome général Moussa Fall commissaire Sangaré da ngeen ko xeeb ak am doole commissaire Sangaré da ngeen ko xeeb yàgg Macky Sall mënul leen cottu dayam. cottu ndeyam lañ ko mënul bu dof dofloo dañ koy dañ koy liquider man nee naa leen am na nu muy demee sax Macky Sall Antoine Diome lan lay jël mu nekk si candidat pour mu toogal ko fi yow pouvoir baaxul gis nga pouvoir <laughs> day dofloo nit Antoine dafa am doole am na nu muy demee sax mu liquider nday Macky Sall jële ko fi Dior Diagne na ko toogal yaa fiy toog yéen pouvoir baaxul lan motax tax Macky bugul tok senegal Macky Sall dominé wul ciot ndayam Antoine diom mo yor yëf yi ak ak yenen généraux mafia bi dafa complexe lu 300 personnes yeen da ngeen fàtte bi euh, euh, ki dem len ngeen sétanat dem len ngeen sétanat document wu Branco vidéo bobu mu ñuy expliquer di ñu wax lan mo xam ci palais ba général bi bi bi commande armée yi ba mu ñëwé ci loxo général boobu mu jaar

Akhenaton waxoon nañu ko neewoon na neewoon nañ ne George Diagne dafa ne woon Antoine dinaa dinaa la def président George Diagne dafa ne woon Antoine Diome dinaa la def c'est un homme extrêmement intelligent man dama ko déglu muy làkk il est très éloquent la barki rasulaay amul xol moom rey la moom dafa dafa dafa dafa pragmatique Sonko mook ñoom ñoo yem mais xam nga Sonko fan la wuteeg ñoom Sonko du de nit il n'a pas l'instinct de tuer, l'instinct de finisseur Nous avons vu def vidéo il y a deux mois ci ginnaaw Sonko n'a pas l'instinct de tuer. Donc, rek mooy problème mais nous, ak Sonko Sonko ñooy yem level Macky Sall du gat mais Antoine euh. Bahoum... procureur Bahoum, quelle trouvaille pour Macky koku mo ñew chamboulé ndey lepp baxu mo ñew commencé ray commencé tej ray mankam fofu la Antoine diom nak commencé am fit mom tamit mais baaxum Antoine diom ak ki remplacer Antoine diom ki remplacer baaxum Abdou Karim Diop moy procureur bi remplacer momit vrai sadique la mais bu ñëk ba basirou Gueye lañu amone diko saga rek waye basirou Gueye ak baax nekata moom man daa de dépôt rek la daan def mais mosul rey kenn moo tax gars yi ko jël ko yóbbu ko OFNAC di ko yow yow doo bandi demal OFNAC dañ ko dàqoon sax moom par Macky Sall daal di jël baaxum amul lu ba ñëpp di ragal Sonko Antoine Diome ñëpp di ragal Sonko baaxum moo ñëw faalewul Sonko ñëw rek commencé di def lu ko neex parce moo laa nee na fu mu toog day naan ak drogue xëy na loolu tax yéen xamu leen sax mafia politico marabout bu nekk Sénégal yéen xamu leen man dama yag setan Netflix gaay yeen lañuy nax waye mënu ma nax mënul nax Branco surtout nak Branco bu mo wanee réseau bi nu mu toll ci la waru ci yalla ba palé ba dem leen ngeen setanat man suma amone jot damay setanat Branco ba ba japp tour yep ma japp leen mais soxlawuma ko soxlawuma ko parce que man xamna naa ne réseau la réseau bi nak pour jëlé leen fi ñun benn chance lañu am soulèvement populaire ñom ñu commencé rayante sen biir armée bi fi mu nekk loolu rek mën a soobee Sénégal Macky Sall daf ñoo jekku lenn rek a ñu mën a sauver xale yi jóg ne système bi daf ci jóge par ñoom nag ñu commencé reyante seen biir coup d'état am te loolu même ak loolu Sénégal day yàqu mais mooy tane Sénégal yàqu na de mais di xalaat Ousmane Sonko day dem kan moo ma posé question ndax Sonko day dem élection ay reye nga def su ma gisee ñoom Amadou Ba ñuy xëccoo kan mooy nekk candidat bokk yaakaar damay damay rey ay rey la ma def <laughs> Sénégal dafa bëri dof Macky Sall cinq candidats la commencé Macky dafa ne man may tànn ci cinq yi Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo euh, Boun Abdallah euh, Aly Ngouille Ndiaye ak Diouf Sarr dafa ne gars yi jox leen ma carte blanche man maay tànn ci ñooñu mu dem ba ci ñoon mu dem ba ci digg bi day duul de da leen di nax moom xamoon na du tànn mu ne léegi non non dem leen ci Moustapha Niass Moustapha Niass interviewé leen ba pare mu ne non loolu doyul xaar ma yokkaat ci Mame Boye Diao ñu dem pale xuloo fa xuloo Mansour Faye jóge fale damay bokk par force damay bokk Macky Sall ne non léegi xaar ma indiwaat ñeneen léegi onze lañu onze tey la léegi dafa am beneen délégation yu bind ñu ne léegi onze yi dem leen ngeen toog ngeen xaar ñu ñu joxaat Macky Sall yëf yi loolu lan la lay wane Macky Sall lii lay def mënul def troisième mandat mënu ko mais li ma bëgg mooy jaxase réew mi réew mi yàqu mu toog wala wa ilaa mu éliminer Sonko kenn kenn kaasu mu jël koo xam ne daf koy leer day day nekk met de def comme Amadou Mame Diop mu jël ko teg teg amatu maam Diop bu ñu ko fa tegee du ñeme wax piip ku ne piip dañ lay rey yéen comprendre leen système bi nu mu garaawee dañ lay woo mënu ko def amatu Ba parce que Amadou Ba xamul sax lu xew moo tax bëgguñu ko choisir il faut que ñu choisir ku mel ne maam Diop Amadou Mame Diop ñu ne ko saa xoolal dañ lay wax rek benn affaire fii da nga may toogal fii da nga ma fiy toogal bu élection yi passé soit nga def cinq ans après man maa ñëwaat mais da nga ma fiy toogal est-ce que di nga signé papier bi ne ko deful dañ lay rey d'accord nga boo ko defee ñu jox la cent milliards wala wala quatre milliards comme bet ba def met ba def mais Poutine dafa ne ko demal nga nekk président ma nekk premier ministre mais Poutine mo yor KGB mo yor ray katou nit Medvedev bu ko trahiron da koy dor bal mu dé Macky Sall ku muy tek fofu boy xef Antoine diom dila la massacrer billahi wallahi taala yéen xamu leen sax lu xew ki ne na sa doomu ndey Adamo waaw Adamo lan la wax xamna mu ñuy saboter yéen xamu leen système bi nu mu grawé Macky Sall dafa am doole légui du Macky Sall kessé Maki, Antoine Diop Moussa Fall Yag. même Ismaël Madior amul doole mais moi c'est un bokk na ci mais New York, fital yi ñoo la preuve cette cette l'émission émission euh, euh, euh, Juan Branco ba mu ñëwee ci bras armé lan la Moussa Fall Antoine Diop Oui, Moussa Fall il am ay ay commandant Antoine Diop dafa am Bandiaki am nappel am am euh, euh, euh, Yag mais surtout le sanguinaire commissaire Sangaré commissaire Sangaré mo dafa am doole commissaire Sangaré dafa am doole parce que mom am un peu ba 500 ay nit trois nit yo dem ci cogni di wër di japp nit ay israéliens wala même bu leen israélien entraîné wul li ñu ba ñu commencé kii ba léegi façon fital bu ne yor nañu yor nañu ay tooki wooki ah am ay information mën a localiser nit ñi bu ñu ñëwee sa kër bu ñu lay jàpp sax bu leen neexee ñu sàccaale gis nga sàngalkaam bañ fa demee ba ñuy jàpp Pape Sow gis nga ni ñu yàqanday yàqate nday kër or lañ doon seet ak xaalis lépp luñ fa gis dañuy kattandeem yu bàle doo ci mën dara vrai bandi la ñu yor Sangaré te Sangaré ni mu amee doole ñi nekk ci terrain yi nervis yooyu dañoo am doole laa ilaaha illallaah sama gars yéen ay xale ngeen yéen xamu leen yéen xamu leen mafia li tax mu grand gis nga Bandiaky dafa am doole Bandiaky ci boppam dafa am ay nitam Sangaré moom moo chef Bandiaky mais Bandiaky dafa am ay nitam nit yooyu xanaa gisu leen ba ñuy taal bus bi bus boobu ba war naa la fi vidéo ñeenti booy ñeenti booy ay njool la ñuy doon sol seen tëy sol seen veste gis nga ba ñuy taal affaire bi ni ñu ko ni ñu professionnel dugg sànni di dalaas la di dox di def nii kenn ku romb am lu mu def ci suuf sànni ay vrai doomeram xanaa gisu leen dàmbuj ñu ko toppee fëgg ko set bal ba pare dugg ci hôtel bi yéen xamu leen Sénégal mu yàqoo sax xamuleen ko mais nag Baye Fall yi même chose.

ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy dóor jigéen yi ay jaas di def lu leen neex mën nañ dem ba ñu wëlbatiku dal leen ñoom nangu yoonu murit toxal Touba yóbbu ko euh, Njaareem mais temps yi la benn sëtu Baye Fall attaqué fi benn sëtu murit parce que sëtu euh, euh, sëriñ bi nu mu tudd sëriñ def naa ci vidéo sëriñ murit bu siiw nii te mu bëri taalibe dafa ne Baye Fall yi lañu nekkee Dakar ah nekk fi di arrêté nit ñi loolu rafetul mais boo sëtu Cheikh Ibra yi génn dal ko dal yu métti ruusuñu ci ruusuñu ci Boy Bass ruusuñu ci ne moom sëtu tuut sëñ Tuubaa la ruusuñu ci euh, euh, euh, xalif général waaye Fall yi dañu am doole de ba pare nga gën nga ñëw jox leen doole nañu dem rek yéen Sonko ni mu leen ni mu leen gañee sax xamu leen jamono dafa yàlla ñu fekkee

kan moo ko ëpp taalibe kan doole ci yoonu murit mais dafa juum mu ne Baye Fall yi xaw ma lan nekk ci Dakar nekk fa ah sol seen nja njaxas jàpp nit ñi di arrêté nit ñi di saraxu di def dootu ko defati ngeen baal ma Baye Fall yi dañ ko dal dal yu metti parce que aussi murit yi li Baye Fall yi li Sëñ Muntaxa jël Baye Fall yi ne leen dem leen marché Ocass ngeen daaneel affaire ñu bëri dañ ko naqaru bu Baye Fall yi waxee murid yi génn def délégation ñun tamit dootuñu nangu kenn wax lii borom daaru Baye fal yi génn ñun tamit après si lu taxaw moo leen woo sotti ci ndox mi set mais Baye Fall li ñu jox doole ñu commencé yàq yenn kàddu bi ba naroon fi rey booy noobal loolu génn naa ci vidéo ma ne leen yaa gars yi ñun nar nañu am problème bi Baye Fall yi bu leen Macky Sall récupéré nekkate li ma waxoon mooy am tey dama ne woon dinaa leen génn vidéo bi dama ko man li may gis muy ñëw billahi wallahi taala affaire Baye Fall bi nii ni ma ko waxee noonu la amee Birame yaa ngi fi woon ay waroon naa xam vidéo boobu na la tudd te vidéo ba mu ko defee war na mat léegi deux mois trois mois dama kaa gis tiit billahi wallahi taala ba ma gisee Baye Fall yi song booy noobal nar ko rey ci laa ne laa mais ñun am nañu problème ah Baye Fall yi bu leen Macky Sall récupéré ñun dara dal ci waa Pastef gars yi dinañu am problème bi mel yaa ngi rappelé billaahi nii laa ko waxee gars yi dinañu am problème de loo am tey lan moo tax Touba benn pneu tàkkatu fa mais nag li ñu def seen bopp la ko tout ça va se retourner bi ñu juumee ba rey Sonko waaw gars yi nañu dem rek ñoom dañu xamul ne Ousmane ko dalee la piège fu mu nekk il est en train de détruire le système Ousmane benn bomba la mu dugg seen biir. bu bu bu deewee c'est-à-dire day exploser yóbbaale ñoom ñëpp lay yóbbaale. billaay barke rasulilah kii nee na ma Reug Reug yàq waaw wax nga dëgg de merci Reug Reug ma dem te defuma Reug Reug yàq naa leen may cinq minutes wala dix minutes li may sonju xale yi mooy waa Pastef ñoo war a jël seen responsabilité ñu jël xaalis jox xale yi ñu jënd essence ñetti par guddi ñu génn ñu dem taal ay yëf pour ñu bañ a rey Sonko léegi Macky Sall loolu la doon def 2011 ba Abdoulaye Wade ne day def troisième mandat Macky Sall dafa jël xaalis jox xale yi xale yi di yàq ñun foofu la ñu toll Ousmane Sonko bu la ko jaralee yow yow mii Pastef benn nit sax mën na yàq mais li gën mooy nga nekk ñett bu leen utiliser waat euh, téléphone tase leen fenn waxtaan leen li ngeen di waxtaan ut seen café muy essance wala diwlin biteel ngeen xaar ba guddi mais ba bëccëg bi ngeen xool li ngeen war a attaqué bu dee station RTS la bu dee euh, waaw yow Fatoumata euh, Fatoumata euh, waaw ana Fatoumata Binta sama gel bi tey nuyu ma ko ah ay temps yi nag soxna dafa dugg sama live moo tax damay def attention sama génération TikTok il faut ma am Brimel il faut ma am soxna Diagne jamaa noir am génération TikTok am gel am naa gel gel bi mooy Fat Binta bi Bintou d'accord nga <laughs> wala wala yow lu raw gel nga bëgg Birmel xam naa bul bul bul ñu ngi ci rubrique yàq xale yi il faut ngeen ngeen def repérage travail de repérage mooy bëccëg bi ngeen di xool euh, dépôt Dakar dem dikk boo ngi gisee ne am na ay oto yu fa nekk kenn garde wu leen wala benn garde dafa am ngeen jug kii ne jeeg la Birmel man génération TikTok laa ngeen ngeen ngeen ngeen jug. bu may bul yàq sama bul yàq yaa ngi may déconcentré bul yàq sama rubrique yàq yaa ngi may indi si rubrique yàq ba <laughs> dégg nga ki naan ma doxaat man maay xal général ah neuf mois di mois ma nekk ci àll di xeex pour defar Sénégal xanaa nag dinaa ci am dinaa am ci xewal yi tuuti ah waaw Brimel yaa ngi may déconcentré Dakar dem dik Wakaam wala bu Liberté 6 xool leen ndax dafa am ay policier wala amul policier bu dee amul policier kenn gardé wu ko ngeen def un travail de repérage guddi gi ut café Touba ñett rek doy siw almet bitel ah morceau diwlin taal bu leen soxlawul sax ay filmer bo leen filmer filmer leen mais limay bañ ci filmer bi moy ngeen filmer ko bo leen ko envoyé xol leen ki nga ko envoyé vous fois gaay nañ leen top seen téléphone xam xam nen noo def mais def leen loolu filmer, leen filmer nak mo gën soxlawul filmer parce que waa Liberté 6 bu ñuy yeewoo gis 10 bus tàkk ñoom dinañ ko filmer dugal ko ci internet bi soxlawul ngeen di filmer parce que boo leen di filmer da ngeen di feeñal seen bopp yàq leen poste courant boo leen mën a yàq armoire internet génne leen ko ngeen taal ko nga xam ne internet dootul am Sénégal Brimel merci mënu ma dem te defuma rebours gi yàq est-ce yaa ngi may deg Sonatel loo leen mën a yàq ba Dakar lëndëm kurus yàq leen ko boo leen gisee oto oto Lonase yàq leen bureau LONASE taal jëppeet loo leen gis loo leen mën a yàq muy mairie mairie APR boo leen mën a delluwaat ci mairie Mansour Faye dem leen bala passé da ngeen yàq waaye da ngeen fàtte taal taal leen yàq baax na waaw yàq am na fu mu baaxee câble électrique loo leen mën a def pour paralyser dëkk bi paralyser leen booy yi ñu ne dañ leen jàpp ñoo doon ay pont booy yi sàggan ngeen pont yooyu waroon ngeen ko jël ngeen wis ko ci autoroute à péage bi mais da ngeen yéex ba ñu jàpp leen mën na sax jàpp ñoom ñoom ñooy fen rek waaw waaw xam nga euh, Fat Binta nee na c'est pas moi c'est pas ma sœur Brumel yaa ngi yak sama sama rubrique yak. xam nga yak bi lu ci baax pour wan Macky Sall ne Pros mënoo ko jàpp te du am jàmm waaw kii nee na les les voitures garées dans les dans les dans la rue sans distinction non non Nefertiti du ñu taal auto sénégalais parce que bu ñu taalee oto sénégalais yi góorgóorlu yi nga xam ne ñoom defuñu ñu dara ñuy taal seen oto yi bu yàggee dañuy bañ Sonko dañuy bañ patriote déedéet te dañuy boole bu leen taal oto sénégalais yi oto APR d'accord bu leen defar bu leen dem ci kër APR yi di ko taal parce que boobu baa di ngeen fi rey ay xale waaw kii nee na Fatoumata Binta naa la set si TikTok eh Brimel Brimel yemal sa place dama lay bloqué de Brimel Fat Binta boo ko laalee dama lay bloqué de <laughs> xaaral ma noppi <laughs> cocktail molotov yi ak waaw gars yi jox leen ma ay idée kii nee na pont police ñoo ko defar ñoo ko defar di kole nit ñi ay métti man xam naa ne ñoom ñoom ñoom la ay doomaraam lañ booy amuñu xel def yooyu booy buñ ko amoon dinañ ko sotti ci ci ci ci autoroute bi fi mu nekk ñi ngi jàpp booy mais mënuñu jàpp ñëpp dem fatigué croyez-moi les Sénégalais ne se lèveront jamais leur comportement est héréditaire et ancestral les Sénégalais se lèveront c'est mal les connaître eh Sambour bàyyi li ngay wax yow APR nga APR nga Sénégalais yi génn première vague génn deuxième vague il y a même pas deux mois nga ne Sénégalais yi du ñu génn waaye bàyyi li ngay wax Sénégalais yi dinañ génn li tax génnuñu ndigal la ñuy xaar waaw waa waa waa waa euh, patriote yi ñoo dem làqatu nga jëmb tur rek la moo làqatu Birame Souleye buggul jël jënd jox booy ñu jënd essence El Malick nekkoo fi dara lu dul communiqué ah Abass Fall porte poste poste maire bi la doon jéem a xeex Guy Marius Sagna nekkoo fi dara du ñu génnal ay loobe ah di ñu génnal ay ay xol ma naan ay soble ah ay soble Guy Marius Sagna soxla ñu soble ñun nga jëmb tur la ñuy wax mu jox ñu bu heure. 3 nga 3 heures heures chaque jour comme ni ko axane Cheikh TV wax ah, au passage ñu solution TV ah ah soin bu chaque jour mu may ma dédicace ci internet bi ak Baye Assane internet comme solution TV dem leen solution TV faral ñu bañu ñu Macky Sall mais dañuy reporter di nekk ci Seneweb comme Diallo Neddo mais Diallo Neddo mu ngi commencé waat ñëw gars yi jàll leen ko xoolaat temps yi mi ngi commencé reporter normal bu leen def dara Diallo Neddo même Thierno Diop gis naa ko mu muy commencé changer discours moo gën ci yéen de waaw loo mën a yàq waaw xee bu ñu dara boo leen mënee taal mairie taal leen mairie euh, euh, euh, Auchan yi comme bu Grand Yoff bi dañ ko yàq ba fu mu nekk mënatuñ ko ti ti jéegul ba léegi loo leen mën a yàq yàq leen loo leen mën a taal taal leen xam nga loolu pour lan la pour woon Macky Sall nekk gis nga Sonko deewagul sax ñuy taal réew kon boo leen taalee boo leen rey Sonko fu ñu jëm te li ñuy wax ni nag fépp la du Dakar kese de booy Ziguinchor yi def leen groupe de trois par guddi ngeen génn ngeen loo leen mën a taal taal leen il faut ngeen di taal boo leen ko deful dinañ rey Sonko de parce que dégg sañ sëñ Bass nee léegi Sénégal dafa am jàmm nee na Sénégal dafa am jàmm Sénégal nag bu amee jàmm loolu mooy dañuy rey Sonko kon gars yi kon gars yi loo leen mën a yàq yàq leen comme ni ko bay Ndiaye di waxee loo leen yàq xeeb nañ ko comme ni ko sëñ Cheikh waxee ah nit buy defar da koy ñëw wan na ko yaa ko dàq defar waaye bu ñëwee di yàq wan leen ñoo leen dàq yàq barke Rasulaay comme yéen da ngeen fii yekk di tiire booy booy di jël mbëkk bi naan dañuy dem dañuy dem ci àll bi pour Espagne pour daan seen doole nga leen di tiire loolu mooy lan yéen yeneen a ñuy rey. di jàpp ni ñi di wax ne ñoo ay bont nee naa leen géej waaye am na douze booy yu ñu fa jàpp kenn xamuñu fi la nekk ba léegi ñu ngi leen di wër si commissaire yi xamuñu leen ba pare ngeen bañ ñu taal taal leen lépp loo leen mën a taal taal leen bu leen rey kenn bu leen taal kër APR bu leen taal kër kenn ñun soxlawuñu taal waa APR ñun affaire bi du waa APR ñun lépp lu état bi moom muy bus muy poste courant muy mairie muy muy muy oto euh, euh, Senelec comme bu bu Tuubaa bi gàcce ngaale ma waa Touba taal nañ fa oto 200 millions bi tey bi tey dafa mer a mer ber ba bu mu génnee nit ñi euh, di ko laaj euh, tàll ko miro dafa mer mer bi tey mooy directeur euh, Sénélec ba waxul loo leen mën a yàq-yàq leen il faut que ñu terroriser seen ndey doomu xaram yi dëmmu xaraam yi il faut que ñu terroriser leen waaw loolu nag boo ko defee président Sonko dinañ ko may jàmm mais boo leen toogee rek ne yàcc ci jeesar ñu ne dëkk bi am na jàmm ñu commencé empoisonner Sonko Sonko nag lépp lu ñu mën a def pour jëlee ko fa dañ ko war a def temps yi kenn waxatul waxu libéré Sonko vraiment kenn waxatul waxu libéré Sonko amul sax stratégie pour libéré Sonko waaye lii stratégie la ngeen di yàq chaque jour di taal dëkk bi ne jëppeet loolu libéré Sonko la mais encore une fois maa ngi soññ Ngagne Demba Touré mu génn comme moom dafa nekk ci clandestinité mu wax ñu heure 3 heures ba 22 heures chaque jour bu Sénégal yëpp génnandoo quartier Sénégal yëpp génnandoo waa Pastef ñoo ci war a jiitu sinon ñu ngi leen di jàpp de gaa yi ngi ñëw de gaa yi ngi ñëw de ngeen def ngeen bañ def ñu ngi ñëw di leen jàpp gis nga booy ñu jàpp tey euh, euh, géejowaay 12 booy defuñu dara lu tax parce que Pastef lañ bokk rek ñu ñëw jàpp leen bu leen jàppee nag jël ay pont teg jël ay bitel kos ko mel teg ne ñoom ñoom ñoo def balaa ñu balaa loolu dinañ ci fekk génn leen benn yoon ngeen xeex waaw Ngagne Demba Touré yaa ngi sacrifié booy yaa ngi sacrifié booy booy ñu def ñu bañ a def Antoine Diome xam na seen tur ñu ngi dem di leen jàpp di leen collé motif génn leen xeex boo leen xeexul tôt ou dañ lay jàpp yow Ngagne Demba Touré léegi nga dégg ñu ne jàpp nañ Ngagne Demba Touré léegi nga dégg ñu ne jàpp nañu El Malick Guy Marius Sagna ñëpp benn benn lañ leen di jàpp waaw kii nee na faut brûler

boo tëjul sa magasin Sénégal yëpp di takk buñ ko sàccee yaa ko def mais li tax ma bëgg trois heures ba ba ba 10 heures mooy deux heures fu mu jotee wala une heure yow mi doon jaay yow mi doon ambilamaan 2 heures fu mu jotee lemal say bagage nga tëj nga ut say xeer ut say cocktail molotov mais mënuñu def lépp lu ñu gis rek taal ko bu yàggee waa waa waa waa Sénégal dañ ñuy jëpp loolu duñ ko def ñun ay symbole. symbole dégg waa APR sax bu Nous leen ñun symbole état bi nous ñuy comme nous avons woo ci guerre Nous suñu booy di de gauche à droite Drimel merci merci ci rubrique mais instant est ce que war ma def euh, euh, rubrique génération TikTok tamit ci nee na idée la non Nefertiti il ne faut pas être nihiliste xam nga nihiliste tout détruire Vous le mettez, Jiji Jiji c'est un nihiliste Akhenaton des fois c'est un nihiliste tout détruire

waxuñu ma fenn tàkk na démb ñu ngi ma doon wax fii mi ngi tàkk fii mu ngi tàkk fii mi ngi tàkk mais man gisuma fenn fu tàkk ay eh, gars yi est gis neen fu tàkk démb gars yi fois dañuy ñëw di jox ay fausse information waaw boo demee nag am na fuy tàkk mais comme léegi internet bi Macky Sall da kaa tëj tiital tiital ba kenn ñemetul woon Birmel bul ma bul ma dugal bu leen ma dugal ci Fatma waaw xam ngeen ne man dama am faible dama am faible ci xalpulaar buy làkk dimbali leen ma rek. man am naa jabar am naa te maa ngi ut génération TikTok waaw Birima nag léegi la nga bëgg nag yow tamit ah nécessité bu leen ma dugg Fabinta dimbali ma eh Birima dégg nga Fabinta nee na da ak day suus nee na suus rek lay def te man di volet du suus moo may daaneel lan laa waxati ci volet di suus waa waa Pastef au lieu ñu génne xeex Birima ñu bàyyi poros poros mi ngi bind di xiifal. Pros mingi xifal di bind El malik, mom mingi volé di sous ah e, nu mu tudd Birame Soleil mingi vol mi ngi volé di sous di sauce di lek sauce soosu suppu kànjam ah pendant ce temps meanwhile ah saway e, Pros moom mi ngi xiifal di bind di xex ñom ñi ngi ci ñi ngi volé di sous te léegi dégg naa am bu bess xene time xene time lu ne la birmel xam nga xene time أخنتون نين خمول أخنة تايم من أمة تايم ما نكو أخنتون دو أمة تايم ده تعرف جزنا تبين واي كل كيوما دعنا دوم يوسف دور دعكو رون تك خمول بينوس لتو دخمول جزنا بين أخنة تايم بنيو أنا من هي خارج دوما دوما كل كي بنا بنا ما خم قولي أخنة تايم يو بنا مل مم جاغو لا واي جاغو بو خمول نيخ لا إلا أخنة تايم بي من جك جز لا إلا إلا الله جيك بو خس بتش لا جس مو أخنة تايم بيتش ولا نيدف mel ne ay dëmm ay waay Sénégal Macky Sall dina yàq Sénégal lii moo ñuy xeex Brimel Macky Sall dafa ndara yàq Sénégal nee na ja ne nees ja Macky Sall dafa ndax dafa ndara yàq Sénégal Sénégal des na tuuti boole di suus dootul am xene time dootul am lëmbal dootul am TikTok dootul am dara dul am guerre civile moo fay am dictature ku yëngu ñu dóor bal couvre-feu état d'urgence waaye ba tey Akhenaton nee na xamul xëy na time ak xam xëy na time ah mu naan nga dëkk sëñ Touba lu yooyu am na fa dëkku El Hadj Malick mooy aimé time ma ne ko Akhenaton ah, ah, du aimé time xëy na time la yaa ko gën a xam yaa ko xamaatoo yéen ci TikTok bi ngeen nekk waa yow man Mister Shake dama leen ëpp fit rek di len wan di leen wan yëf yi mais ma gën a bëgg TikTok Macky Sall kan moo ko gën a bëgg TikTok ma yéen voilà eh gars yi waaw kay 120 rek laay def tey. 120 minutes lay def daal di ñibbi xam leen na nak une semaine mo dess moo ma dese bu Macky Sall reyul ci digënté bi dootuma fi nekk nak di def live bi chaque jour gis ngeen tay tay tay say dama wañi live bi trois jours yi mu ñëw une semaine mo dess mais 3 jours yi mu mujj benn live lay def mënu ma def deux live foog may noppalu ko waxoon naa leen ba ma nekkee ci boppam Birame waxuma leen ko dina leen defal live yu neex ah gaay defal na leen live yu neex waaw ki ne na Mister je t'ai connu sur le live de Ahneton. quand la dame en a parlé ah yo, yo, Yo, y a yo, yo, Sénégalais créer Yo, ne la Brimel. ah soxna il faut que je ne ko ma vidéo Brimel, il faut que ma vidéo ah, ah ak ak sama TikTok bi i faut moo ko mu defar ma volet suus di vole du suus ay eh, Fabinta yow moom nee nga suus rek ngay def ah Fabinta il faut nga envoyé ma Fabinta il faut nga envoyé siis man volet suus moo may rey yow xamoo yow xamoo xenetaan mais yow négatif foo ne maa xalaat da nga am jëkkër moo tax da nga am jëkkër tu es une femme mariée xëy time de mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi rey dëkk bi. ay eh, gars soyons sérieux nag soyons sérieux bu leen bu leen man bàyyi woon naa.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

yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko ñetti yoon yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko ñeenti yoon yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko juróomi yoon yàlla na yàlla sàmm sàmm Ousmane Sonko juróom benn yoon yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko juróom-ñaari yoon neefit noo ko ciy defee tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf voilà Macky Sall yàlla nga jaare yàlla nga sida yàlla nga paludisme yàlla nga corona yàlla nga cancer tuf na defati noo koy defee tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf non Macky Sall Macky Sall sax yéene wuñ ko loolu yëpp vraiment <laughs> bu bàyyi Sonko moom dañ koy ñaanal waaw ñun ñëpp ay Sénégalais lañ kii ne ne je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal ah yow xamoo xëy na time laa ilaha illallah waaw mais garaawul comme xam nga suus waaye xam nga suus volet suus moom xam nga ko daal boobu moom ñàkk naa bañ a xam moom booy boobu dañ ko war a décorer xaw ma lan Ndiaye Rose. mais dégg ngeen teg teg teg teg dëgg dëgg teg dëgg dëgg teg eh dëgg dëgg teg eh dëgg dëgg teg di boole di suus xaw ma lan eh di boole di suus waaw xaw ma lan teg teg teg teg teg teg teg gin teg teg teg teg teg eh gin gin teg ay waay xale Sénégal yi ay waay Sénégal Sénégal vraiment Macky Sall dafa bëgg a yàq Sénégal gis nga bu yàqul Sénégal dina am yeneen yu gën a graaw yu ñëw eh Fat Binta maa ngi xaar sama volet suus vidéo envoyé ma ko à euh, euh, euh, Facebook <laughs> dégg nga est-ce que Fatou Fatou Bintou dafa daw eh Nefertiti waxal Fatou Bintou mu mu envoyé ma volet suus <laughs> waa gars yi maa ngi dem non Sénégal fa neex mais nag ndeysaan Macky Sall gis nga innocence bi lépp dina ko yàq ndeysaan suñu xale ah daw na waxal ma ko eh, jox na ma ko Nefertiti waxal suñu xale yi de zéro à quatorze ans Macky Sall dina yàq seen génération mais yàlla baax na voilà gars yi bonne soirée bu leen fàttee ñaanal Brosse nag ak Anna Diamanka ak ak ak Cheikh Ndiaye ak euh, Hannibal Jim ak euh, Pape Abdoulaye Touré ak euh, Pape Alé Niang ak ñiy def grève de la faim yëpp ak ñi nekk ci prison bi yëpp mi ngi commencé taw fii sax bu leen fàtte di leen ñaanal il faut garder le moral te xam ne Ousmane Sonko daf leen a jekko ñu ngi koy ñaanal mu continuer am courage mu def grève de la ñun xam nañ ne bu soobee yàlla on va gagner voilà waaw on parce que ñun ñoom àdduna la ñu topp ñun ragaluñu dee ñoom dund la bëgg ñun ragaluñu dee donc on va on va avoir une victoire c'est ça gars yi baale ma coupé ñu ngi commencé taw ba suba incha allah eh dem leen sama TikTok ngeen seetaan foofu ngeen partage